salaam salaam mbokk yi nuyu naa leen ziar naa leen j'espère que ngi ci jàmm rek alhamdulilah baada auzu billahi min asheytaani rajim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen dalal ak jàmm di leen nuyu di leen ziare hmm? di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di leen yegg si leen nag ngeen liir sujet bi bu ngeen liiree sujet bi di ngeen gis ni tey dañuy waxtaanee thème bu sensible thème bu sensible sax moo tax partager leen ko bu baax a baax a baax ngeen aimé ko ndax thème la boo xamante ni malheureusement waxtaan ci yombul kon il foog que ñu waxee ko ci xam-xam teg ko ci ay base yu leer ci psychologie Awa nuyu na leen ziar leen partage leen euh, euh, live bi ci seen groupe yi partage leen man chaise ba dëgg na sama robe bi lii jàmm la <laughs> partage leen euh, kii bi live bi partage leen ko ci group yi ci statut yi ndax sujet la boo xam ne mën na aider beaucoup de personnes mën na dimbale beaucoup de personnes ndax sujet bu sensible la waaye surtout ñun waajur yi nañ ci taxaw ñu jéem ko waxtaanee te jéem ubbi suñu xel yi ndax en général comme ni ma ko waxee ñi nga xamante ni moom euh, gars yi am na ñoo xam ne ñu def demande awa ah, gay da def demande wala parce que bu ngeen laalee caméra ñaari nit yi bu ngeen ko laalee demande la te bu defee demande ceci dit que da a war a yéeg fii jàkkaarloog man ñu waxtaanee ko ku bëgg a question aussi mun na def noonu mën na laal fi ñaari nit yi nekk ma invité ko mu poser ay question ñu waxtaanee sujet bi ñu ngi waxtaanee li nga xamante ni mooy trouble de la personnalité narcissique bu dee dafa atteindre yaay bi mooy ci sama fiilu courant bi dégg nga <coughs> ah, dem defal ndànk rek waaw ah, donc du coup ñu bëgg ko waxtaanee daal di koy expliquer mu nekk loo xamante ni dañ ci war a bàyyi xel demee ci ak xam-xam ndax trouble comportemental buñ ko waxee trouble la boo xamante ni am na yeneen trouble yu dul trouble de la personnalité narcissique am na trouble borderline am na trouble schizophrène am na trouble schizoïde am na trouble euh, mën nañ ne paranoïaque donc y a beaucoup trouble trouble nag bu ñu ko waxee mooy lan mooy nit ki ci personnalité am dafa am li nga xam ne dafa anormal maanaam nekk loo xam ne lu lu ñu mën a tuddee normalité la ndax dafay atteindre société bi di atteindre nit ñi di atteindre ñi mu dëkkal di leen gaañ ak di leen di euh, def vie boo xam ne dafay impossible kon nit ki nga xam ne moom moo koy dund malheureusement yéegu ko mu ne je pensais que c'est le lien lien bi mooy bi def ñaari croche yi lonkulante noonu Eh, waaw boobu mooy lien bi Bàjjen Roqaya nuyu nañ la ziar nañ la eh, mu ne waaw Bàjjen Roqaya ak Matar Sall ñu ngi leen di leen ziare ñu expliquer lan mooy trouble trouble buñ koy buñ koy définir mooy li nga xam ne daal ci gàttal dafa nekk loo xamante ni dafa ñëw rax ci personnalité nit ki te nekkul lu normal ndax nit ñi ku nekk da nga am sa personnalité mais personnalité bi normal doomu aadama li normal ci moom mën nañ ne. mooy lépp li nga xam ne jukko la ñuy tuddee les bonnes mœurs ci bon mœurs yooy nag mun na am ay mbir yoo xam ne par exemple nit mën na nekk fenkat kase muy am fa moom xam na ni fenkat la il est conscient du doon problème nit mën na nekk koo xamante ni par exemple dafay manipuler xam na ni day manipuler il est conscient de temps en temps xam na da koy utiliser kon loolu du garaaw parce que li am solo mooy nit ki li nga doon nga xam ko euh, ki am trouble de la personnalité narcissique nag d'habitude trouble la boo xamante ni dafa formé wu depuis bas âge en France balaa xale bi di am conscience parce que xale xam nañ à de 5 ans jëm 7 ans ci lay développer sa sa conscience léegi nag xale bu bu fekkente ni bi muy am 7 5 euh, ans ba 7 ans conscience am c'était pas assez développé que ça ci lay commencer nag di adopter mécanisme yi nga xam ne mooy mécanisme du narcissisme. narcissisme nag fan lay jógee lan moo koy indi lan moo koy teg nit li koy teg nit bëri na Pape Diagne yu nañ la ñu ngi nuyu aussi soxna soxna Mané Wali soxna Mariam Diédhiou ah, nuyu nañ leen ziar nañ leen ñëpp donc ñu xam ni kon trouble boobu dafay nekk loo xamante ni tey doomu aadama bi mu daal du ko yëg eh, du du yëg ni am na trouble soxna am Aminata nuyu nañ la ziar nañ la ki mu daal du mën a comprendre que ni trouble bi kat dal na ma parce que lu tax mooy bi muy jël balaa muy jël conscience fekk na trouble bi installé na fa moo tax nit ki du yëg ni moom lii daf ko dal. nit ki du sentir ni dafa am problème bi nit ki tamit du mën a gis ne lii jukkoom la kon nit ki ci gàttal yëgul lu ko dal depuis mu nekk xale léegi dañuy wax ni perversion narcissique fan la jógee ak lan moo tax nit ki di ko doon mbokk yi tapote leen live bi ngeen aimé ko ngeen partagé ko parce que dina dimbali du nit ñu bari kon bu leen ko yërëm partagé leen ko ngeen tapoté ko parce que ce sont des sujets très délicats nga xam ne jafe na nga gis sénégalaise bu la koy wax ci olof jàkkaarlook yow décortil le euh, ko décortil euh, décortiquel la ko waxtaan si ak yow d'une manière boo xamante ni tey dina mën a set dina mën a leer kon ñu xam ne chance la boo xamante ni ah macha allah nañ ko saisir parce que yombul ndax tey jàkkaarlook sénégalaise boo xam ne euh, macha allah coach la en développement personnel wax ak yow ci psychologie lu leer naan ñi di ko dégg ci sa langue. nañ ci bàyyi xel parce que lu tax mooy euh, doomu aadama yi nga xam ni ñoom ñooy dooni narcissique après fan lañ ko jëlee d'habitude ci ndono lay doon du ñu ne c'est héréditaire scientifiquement prouvé c'est héréditaire mais la plupart lu tax ñu naan c'est héréditaire parce que nit ki environnement bi mu yaroo c'est l'environnement qui détermine l'homme tey xale bu juddoo ci benn environnement 99 pour cent virgule 99 pour cent il est sûr et certain que ni jukko environnement boobu da koy daal di jël sans pour autant def mu tay ko mais le fait que ñu yaree ko ci yar boobu moo waral mu koy doon kon d'habitude nit ki bu dee yaayam wala papaam narcissique la c'est sûr et certain à 200 pour cent que ni bu juree juree mu doom du ñàkk benn benn yu ci ci ñoom yi nekk narcissique comme seen waajur. lan moo tax parce que narcissique bi nga xamante ni mooy yar doomam c'est une personne bi nga xamante ni dafa nekk nit boo xam ne amul empathie nit nag bu amul empathie du mën a yar xale. kooku moom xale soxloo ko sax nag normalement dama ne narcissique yi waruñu woon am doom parce que besoin fondamentaux bi xale di am moom du ko mën a xam du ko mën a yëg ndax narcissique boppam rek moo ko ñor moom day utiliser xale bi au contraire pour satisfaire ses besoins dans le sens que tey xale bi dafa war a conforme ak moom li mu bëgg xale bi dafa war a mel moom ni mu bëgg xale bi warul nekk xale bu bëri jooy xale bi dafa war a judd rek màgg xale bi warul nekk xale bu koy déranger warul nekk xale boo xamante ni tey dafa bëri ay attentes warul nekk xale boo xam ne daal dafay déséquilibré li nga xam ne mooy euh, son royaume kon narcissique nekk une personne bi nga xamante ni buñ leen ko définir li di nga gis nit la ku dangereux ci doomu aadama pour pourtant moom bi nga xam ni moom mooy narcissique bi yëgul ni feebaram narcissique la yëgu ko yëgul mais xam na bu baax il est conscient xam na bu baax kër ni day fen waaw xam na ni day def nit ñi lu bon xam na ni dafa soxor xam na ni dafa jaloux xam na ni day manipuler xam na ni dafa am ay stratégie malsain pour atteindre nit ñi il est conscient c'est une personne mais problème bi mooy euh, mënul accepter que ni lii muy def nii mën na yóbbu nit ci benn état bi kon loolu mooy problème moo tax le fait que nit ki narcissisme dafa développé avant muy atteindre conscience looloo waral narcissique bi yëgul ne narcissique la te du mën a changer kon dina am ko ma ne waa ginnaaw feebar la ndax dinañ ko mën a faj kenn mënu ko faj lu tax mooy nit ki nga xamante ni tey li muy def daf ko neex gisul ni ngaañ-ngaañ la gisul ni yow boo ne gaañ nga moom yëgul ni gaañ la daf ci am plaisir kooku lan moo war a tax tey muy faju xam nga nit tey boo pour nga fajo day fekk nga yëg douleur nga sentir gêne nga sentir mal nga yëg euh, métit bu tax tey nga décider ne ah ginaaw lii métit la kon naa décider changer kon ñu ñëw ci ki nga xamante ni tey si trouble boobu nan lay manifester woo ci nit day manifester ci nit ci bas âge comme ni ñu ko waxee balaa nit ki di atteindre la raison une fois que mu manifester ci nit ki nit ki d'habitude waajur yi nga xam ni moo ko jur ak environnement familial bi foofu lay entraîné woo ceci dit que foofu lay formé woo foofu lay jàngee fen foofu lay jàngee manipuler foofu lay jàngee tappale lan moo tax xale bi di def loolu parce que tey xale bi xam na ni tey par exemple yaay bi ko yar en général wala papa bi ko yar narcissique la tey ngi ci yaay bi parce que vu que dafa complexe du ñu bëgg xam ne narcissique la tey danaan doomam amoo droit dimensionnel amoo droit jooy par exemple xale bu jooyee yaay ji capable na dóor ko ay dóor yu graaw donc xale bi même bu fekkente ni am na lu ko naqari du ko mën a sañ wax yaayam kon xale boobu xale buy nëbb ay émotion la day teel a jàng téye ay émotion parce que buggul émotion yaay ji di ko gis mu koy naqari xale boo xam ni yaay ji da koy wax ni tey bu fekkente ni tey dama mer yow yaa tax ma mer parce que yow yaa def lii wala yaa wax lii wala yaa ma def laa. bi nga xam ne aussi waa Pape Dia si sa moom mu ngi bëgg a metti de benn nit bi yónnee nga ko six fois ah, ah lii de dina ma yàggee kon ñu bàyyi tey mu ngi jéem a euh, dompter ses émotions pour plaire yaayam bi nga xam ne bëgg ko gis loolu problème lay doon narcissique bi tey bu juddoo problème bi mu njëkk am mooy waajuram du ko accepter comme ki mu doon ndax waajur bi danaan xale bi tey man maay sa yaay kon li mu bëgg noonu nga war a mel yaay bi du conscient que ni xale bi dafa am personnalité am dafa am nu mu mel dafa am yu mu bëgg xale bi dañ ko war a toppatoo par exemple ñaari narcissique ñoo am ci ay ci yaay yi day gis koo xam ne tey doomam da koy def benn genre jouet benn mannequin bu ndaw doomam mën na ko jëndal ay yëre marque mën na ko jëndal lu cher mën na ko kii parce que dafay afficher xale bi ci mbedd mi pour ne man yaay bu baax laa damay def tout pour mes enfants mais moom apparence rek la parce moom lu muy def c'est pour waa mbedd mi pour ñi ñëw ci këram pour famille bi ñëpp ne ah ak a waxee danga naan nekk ay am na ci benn benn parce que moom du jël doom yëpp maltraité day tànn parce que doom yi muy jur ñi ki ko ci niru ko koy doon xaritam ko koy doon l'enfant roi kooku lay jël taf ci wetam ki nga xam ni jël na ko daa de gis ni xale bi xale bi am potentiel la mu jël ko taf ko ci wetam xale bi nga xam ne nag daanaka mooy xale bi gën a sañ ci famille bi xale bi juddu wér amul benn problème commencé di gis comportement am di ko bañ di ko wan ne carrément yaay mi ngay doxalee du nii wala ni ngay def du nii wala lii injustice la xale boobu nag mooy doon noonam da koy dresser ne ko yow kaay ginnaaw dangaa bëgg a ubbi bëtu nit di leen wan ni man damaa damaa sikk wala man dama foo wala yaay bu baax yow nag laay def sama victime. bu boobaa mën na jël ci doom yi ñaari victime mën na jël ñett mën mën na leen di alterner mais dina ci am kenn koo xam ne moom mën na toog si ne mais sama yaay est ma jur. xam nga nit bu demee ne sama yaay est-ce que mu la a problème problème yu am na ndax ñun conception bi ñu am ci waajur Sénégal daanaka waajur fañ ko teg dafa mel teguñu ko ci place yàlla. ndaxte da ngay gis ne euh, waaw bàyyi ko de parce que vraiment yaa ngi feesal commentaire yi ak ay yoo xam ne du am njëriñ boo ko mënee effacer sax moo gën parce que amul benn sens ñuy commenter de cette manière là. ku am sa question na nga ko posé bu ngeen ko mënee aussi partager et kon dañuy gis ne waajur dëgg la lislaam daf ko jox place bu kawee ci diine waaye nag da gis ni. ci noonu ci lay yenn ci waajur di abusé maanaam Sénégal sénégalais dafay abusé ci kilifteefam jëkkër bi kilifa la day abusé yaay bi kilifa la day abusé papa ji kilifa la day abusé képp ku mu yilif moom mooy amoo chance parce que kilifteef googu da koy jël ci ay menaces par exemple da ngay gis yaay narcissique day menacé ay demam tey bu ngeen ma joxul lii dinaa leen ñaan yàlla day ñaan sax yàlla ay demam yow yàlla na nga torox yow yàlla na nga di leen rëbb yaay la boo xam ne amul benn yërmande ci ay demam amul affection amul empathie fu ñu ko fekk mu ngi bax mu ngi nekk en colère et pourtant bu ko waa mbedd mi gisee elle est souriante elle est accueillante nit bu mën a joxe nit bu mën a mën a macha allah maanaam nit boo xam ne yow boo ko gisee ci mbedd mi ak ay façon bam da nga naan kii jigéen gënu ko mais boo ko fekkee ci biir kër gi te d'habitude nit doomam yi nekk victime noonu la jëkkëram di nekk victime kooku beneen débat duñ ci dugg tey mais dangay gis ni tey doom yi ni seen papa nekkee góor bu impuissant toog ci kër gi mel ni ginaar bu tawte amul kàddu ci kër gi deful dindiwul ndax ñemewul ndax waa ndaw si euh, accaparé na système kër gi jël na doom yi taf leen ci boppam ba pare nag di leen ping pong di leen alterner nu mu ko ni mu ko neexee nga gis ni xale bi li muy njëkk a gis mooy bu gimmee day gis ni man sama famille normalul xale bi day gimmi gis ni sama famille normalul ndax man ñeneen ñi nga xam seen yaay dañ leen bëgg dañuy waxtaan ak ñoom dañuy leen di consoler man sama yaay jéemul xam lu ma naqari jéemul xam lu ma neex narcissique bu rombee doomam muy jooy du ko lijjanti lu tax doom ji du jooy lu mu koy wax mooy jógal fii ak sa jooy yu bëri su ma la fekkaatee foofu ngay jooy dinaa la a dee pare na ci moom ndax doomam dañ ko def lu bon wala dañ ko dóor wala dañ ko kii non non ko mu nekk nag koo xam ne tey dañuy gis ne tey bu nekk ay doomam ci biir doom yi moom daanaka euh, dañuy su dañuy servir rek pour ay bànneexam tey mën na nekk yaay boo xam ne par exemple apparence bi muy wan mbedd mooy sama doom dafa parfait mooy yow doom ji amoo droit à l'erreur yow da nga war a parfait école da nga war a parfait sa jukko da nga war nekk benn militaire bu ñu dressé amoo droit wane ne da nga sonn amoo droit wane ne da nga gémmantu amoo droit wane ne da nga jaaxle amoo droit et que yow ne te confie pas bul ñëw mukk di wax sa yaay lan moo la mool na xel et que narcissique bi tamit nekk koo xam ne day utiliser doomam di ko def comme instrument instrument dans le sens que tey bu fekkente ni dafa nekk ci kër gu mag day yebal xale bi pour mu yëddu di ko yebal pour mu koy nettal li xew ci kër gi di ko yebal maanaam moom yoonam newul ci xale bi na yaroo bu mu yaroo ah. moom moom li intérêt mooy moom li mu bëgg mooy xale bi na dem di ma indil ay information ci sama wujju wala ci sama belle famille wala ci nit ñi wala na yëddu wala na xale bi jéem a xool indi information yi kon kooku xam nga ni xoolul doom ji lan lay dooni ëllëg si bi nekk koo xam ne aussi ay doomam da leen di concurrencer daf leen di rivaliser day jël taaw teg ci kaw caat jël caat teg ci kaw taaw jël kii teg ci kaw kii dina jël doom yi def leen ñu noonoo seen biir tey boo gisee kër goo xam ne mag yi rakk yi dañu noonoo di lekkante jubawuñu xeex bi xuloo bi rayante bi xawalal ci yaay ak papa ji kan moo ciy narcissique parce que ñoom ñooy formé boobu situation xam nga lu tax ñuy def loolu mooy dafa bëgg doom yi di concurrence pour di ko jaamu tey ku ko gën a jox mu ne waaw kii de moom dina am barke kii de dina yow nga gis ni pourtant yow mi nga xam ni amaana yow yaay cible bi yow lay xas yow li nga koy defal un quart keneen ki defu ko mais dafa bëgg nga dolli loo def doyul tey yaayu narcissique tey capable na nga liggéey sa bu wax tàll mu ne la teg ko fii boo ma ko joxul doo am barke nga ni ko mais yaay dama am yu ma war a fay moom lijjantiwul loolu yoonam new ci même bu dee da feebar bay dee ñu war la opéré war a tudd hôpital war a utiliser xaar non non moom yoonam new ci ah de toutes les façons moom nee na pour yow nga am barke pour sa àddina baax il faut il faut que yow lum la teg nga tegoo ko yow amoo droit riposter yow daal tu n'existe pas moom daf la jur pour nga koy subvenir man j'ai entendu une mère narcissique bu ne man juruma ay doom pour yar leen ba ñu màgg ñuy liggéey naan dañuy def vie bu bel déedéet man samay doom dañuy liggéey ba màgg di di liggéey salaire di ma verser. parce que man juruma ay doom uniquement pour ñu màgg naan dañuy dem defi la vie belle wala dañuy sëy dem jël seen xaalis di ko jox seen ay jabar wala di ko jox seen ay euh, jëkkër loolu soxla ma ko li ma soxla mooy samay doom xaw ma lan mooy seen problème ça ne m'intéresse pas chaque boo xamante ni c'est normal xale yi en bu ñu nekk ay xale dañu jàpp dañu jàpp sama yaay dafa tàng mais lii c'est normal mais bu ñu màggee dañuy gis c'est pas normal sama yaay elle a des sérieux parce que sama yaay li mu bëgg rek la xam sama yaay xamul nit ki nga xamante ni tey dafa am vue am à un certain moment am na euh, tuuti autonomie tey narcissique bi da gis ni tey même bu fekkente ni ja mu ngi jàng egg benn âge sa yaay tey boo moytul moo lay tànnal branche bi ngay liggéey boo amul chance moo lay tànnal sa jëkkër ba ngay sëyal boo amul chance doom yi moo leen di tànnal jabar moom mooy tànn lépp mooy def lépp. gis ngeen li may wax ci yaayu narcissique bi kilbite leen ko def ko ci papa narcissique parce que c'est la même euh, boole koog day fen ay doomam boole koog naan leen dama dëggu. daf doomi day dama xam ne sama yaay daf may fen li ma wax dara ci dëgg capable na woo doomam ne ko maa ngi nii hôpital dañ may perfusé sa yaay nangam sangam doom ji yónnee ko xaalis kut koo mooy xaalis bu doom joxe mu ne ko xam nga yooyu ce sont des choses yi nga xamante ni euh, ba daado mu ne espér daado espérance bonsoir madame moi j'ai un problème damay gaaw a mais en plus je pense lan euh, ma xool lan may lu may conseiller problème de colère lépp dinañ ci ñëw incha allah parce que sujet bi ñuy traité tey ku nekk na jéem a dugg ci biir famille càmbar ko xool ndax ñi màgg ñëpp di am ay problème mu dépression problème stress post traumatique problème mu sëy yu naqari problème mu nangam sangam base bi ci parents yu mel nii lay jógee parents yu narcissique yoo xam ni bi ngay nekk xale may ñu la woon ngay wane say émotion nga màgg nag say émotion yi di génn di taw mu jaaxal la sa àddina di yàqu munoo avancer sa lépp di tourner yow ci demande mais man lan mooy sama problème man sama famille sama yaay bëgguma d'ailleurs waaw mu ngi noonu samay samay frères et sœurs dañuy dañuy concurrence ak man sama famille nangam sangam et que même sama sëy ça ne va pas même sama milieu professionnel ça ne parce que sa famille fondement bañ la fa fondé moo baaxul. la plupart ci nit ñi maa ngi amee problème relationnel am ay problème d'émotion problème de colère de frustration am ay trouble de la personnalité am yenn problème yi la plupart sont les personnes yi nga xam ne ci famille dysfonctionnelle yi la ñu jógee. famille dysfonctionnelle nag Sénégal kër goo dugg fekk ko fa daanaka ñi ci mucc am na. c'est très rare ndax problème perversion narcissique bi dama nekk Sénégal tey dañuy wax ni étude mondiale yi dañuy wax ni société bi mel ni Europe presque 7 pour cent de la population masculine góor ñi ay pervers moom bu ma yeboo ma ni chiffre boobu nañ ko nañ ko nañ ko euh, parce que société bi moo accepté perversion narcissique société bi moo accepté ah sa yaay la de Euh, toj doj la boo dalee ci kawam toj ba dalee sa kaw toj de toute façon lu mu bëgg a waxee defal pourtant diine waxul loolu diine autorité bi daf ko limité autorité bi dafa am encadrement bu la joxee autorité wala mu jox la responsabilité wala mu def la kilifa da koy encadré doo nekk kilifa mu la xam lan mooy kilifa mut la xam mooy doo nekk kilifa goo xam ne yow daanaka yow amoo yamu waay yow amoo amoo limite daal yow daal la neex nga xam déedéet parce que beneen nit bi nga ne ko jur indi ko ci àddina moomoo ko narcissique nag dafa jàpp ni moo moom il te possède vu que moo la moom te nit ki li nga moom wax dëgg yàlla <laughs> amul loo ciy laaj dangay def li la neex mu nekk situation bu triste boo xam ne chaque jour nit ñëw Fatima Zahra sama yaay sama yaay sama yaay sama pap sama pap sama pap lu tax waajur jur doom ba pare di ko détruire loolu c'est anormal parce que tey waajur buy def loolu l'unique chose lu ñu mën a xool mais c'est pas une personne normale ndax tey waajur bu normal bu yaree doomam jusqu'à un certain âge da koy bàyyi mu libre def viom parce que màgg na c'est une personne bi nga xam ne il réfléchit il est intelligent lu tax yow nga toog fi nga toog sëy sëy ba mu jeex nga ne sa doom yow tey doo takk ku ma ku ma neexul doo ko takk sa doom bu góor di liggéey xaalisam am ko nga ne ko waaw ki ki nga bëgg a takk neexu ma yow foo ko teg fanaanoo ak moom. yow dox nga sa ndaw ba mu jeex mais arrêté leen yow yaay nga mais yaay ba nga nekkee yaay ca nga war a rangé wu dund nga sa dund ba mu jeex bàyyil sa doom yi dund seen dund amaana yow kenn tànnal la woon nga bëgg a tànnal sa doom pour lan pour yàq àddinaam heure boo xëyee yaa ngi xool jabaram ban couleur yére la sol parce que narcissique moom bu nekkee sa goro yow moom amoo chance sa sëy moom daanaka dafay naqari dangay xam ne sa jëkkër bëgg na la waaye boo amul chance ah sa boobu mooy tax sa ndax maire yu ci bëri ci Sénégal ñu goro ba nangam ay pervers narcissique lañu parce que problème mu narcissisme mooy nit ki dafa bëgg boppam ba moom pour moom bu lay joggati sax di jàll di joggati sa néew lu mu bëgg da ko war a am perfection nag nekk li ñuy wax saay-saay kàccoor kàccoor gi nag fen tappale manipulation jaxase diviser pour mieux régner kuy jaxase say propre doom kooku di nga bàyyi keneen kër gu ñu dugg tas ko kër gu ñu dugg da ngay gis kër gi di booy ngay laajte kër gi lan moo fi xew fekk na li ñuy def c'est tellement subtil ndax boo muusul yeewoo amoo clairvoyance doo gis dara tu n'arrives pas à percevoir rien du tout awa ah ñu ngi nuyu nañ la ziar nañ la Mame Ndiaye Konaté mu ne macha allah tout puissant le tout puissant te couvre sa baraka toi aussi je suis alhamdulillah et Dieu des enfants vraiment adorables et responsables macha allah yàlla na yàlla yokkut yàlla barkeel li ci des mooy partage leen live bi ngeen aimé ko aussi bu ngeen amee question à ce sujet ngeen posé ko parce que sujet la bu tabu bu metti parce que tey kenn bëggul ne man sama yaay <laughs> dafa am problème bi kenn bëggul ne sama papa dafa am problème bi parce que c'est très sérieux c'est très douloureux c'est très violent tey nit nga xam ni sa doom yi bi ñu nekkee xale ngay gis ne d'habitude ay parent yu violents lañu duñ la duñu baal doom dara dañu jàpp seen doom yi dañ leen di traumatiser dañ di dóor xale bi da gis xale yu bëri yoo xam ne dañuy teel a bàyyi jàng parce que bu fekkente ne yow école yaa ngi fay dem say not taxul nga indi not yu baax en ce dafa naan toogal fii ndax danga may yàquloo sama xaalis moom xoolul mu ngi yàq sa intérêt sa avenir ko uniquement parce que satisfaire ko ci moom not yi mu bëgg nga indi ko et loolu problème la narcissique bi capable na gis ay doomam jël kenn ki def ko mu nekk dominateur comme moom des fois mu nekk doom bu góor d'habitude bu dee jigéen la bu amee taaw bu góor taaw bu góor moom lay fam mu nekk narcissique comme moom di bëgg te ñeneen di leen salfaañe kër gi nekk kër goo xam ne daanaka këru anarchie la et que jeu bi muy joué c'est très rare nit ñi mën ci gis subtil parce que daf koy masquer ak benn générosité bu extraordinaire surtout jigéen ñi dañ koy masquer ak mën a def teraanga mën a maye mën a defal sa doom yi tey lu ñu soxla bu ñu soxloon oto mun na lañ ko gaareel waaye tu vas le payer très cher tey ce sont des des yoo xam ne c'est tellement masqué tellement subtil ba yow bu la yàlla mayul discernement doo ko mën a gis parce que après da confusion tu sama yaay mu ngi may defal tout mun ngi may may lépp mun ngi may mu ngi may matériellement ils sont là waaye matériellement mën nañu def ci seen doom mais da ngay gis ni le fait sax ñu ne sa doom je t'aime mënuñu ko sa doom nekk angoissé am ay problème de santé sax nga jël ko def ko câlin teg ko sa wet mënuñu ko elles sont incapables wane seen affection parce que amuñu affection bu ñuy wane ils sont des personnes yi nga xam ni ils sont incapables di euh, di joxe affection xaadim sow mu ne lan sama giri sama comprendre sama giri moom a jaaxal bu ngeen di bind question aussi dee leen ko bind d'une manière bu claire merci madame peut-être grâce à vous les sénégalais vont arrêter de diviser tous les mères toutes les mères waaw parce que narcissique moom xam naa ni moom du doon problème boo xam ne dina yomba rek la Sénégal ndax problème yu kii la mu ne goro narcissique balaa ngay balaa nga koy détecter <laughs> dem faan <laughs> waaw loolu de maa la ko wax. parce que goro narcissique nag problème bi mooy moom boo ñëwee daf lay yaatal daf lay def comme doomam xam nga ma narcissique tout le temps li tax seen jeune nag xaree détecté mooy au dañ lay ubbi seen bopp dañ lay yaatal seen bopp dañ lay wan mbaax capable nañ jënd ay piis moom mi goro moom moo lay teral yow yaa ko waroon teral mais déedéet moom moo lay jox teraanga moom moo lay defal moom moo lay dimbali ma daf lay taxawu daal yow tey ji boo amee problème ñëw wax ko au début dafay ànd ak yow def genre bu paree woo doomam ci suuf sol ko doom ji bu ñëwee di la torturer boo ñëwee wax ko en certain moment day dem ba ne eh, xam xam nga lan la yaa ñuy bëgg a rey boo mënee nga sëy boo mënoon nga bàyyi bu ko defee laa nga ni mais sama goro dafa changé est-ce que du man maa sikk bu bi lii affaire bi neex mais après bu lay baab bi di la wàccee yow loolu moo lay terroriser parce que après yow da ngay da ngay am traumatisme parce que tu vas te dire que mais c'est tellement violent mais tellement rapide de d'un euh, d'un à l'autre cette personne dafa changer radicalement kon yow dangay ngay def da ngay gëm ni yow yaa am problème parce que boo ko deful woon xëy na dara du changer nii te yow boo xoolee nga daal di xool xool xool da ngay gis ni mais fii dara changé wu fii man defuma dara lu anormal munoo gis ci sa conscience lu anormal du coup situation bi nga dund day nekk situation boo xam ne vraiment daf lay jaaxal daf lay jaaxal daf lay jaaxal. mu nekk loo xam ne nag man nag Facebook bi li ma ci soof rek commentaire yi koy laal muy tëb di tëb di tëb tu n'arrives pas à cerner Xama euh, lire commentaire Assane Ndiaye bi mu ne je me sens vraiment touché par vos vidéos macha allah Assane na yàlla barkeel ah, commentaire dama ko daal muy tëb ton sujet d'aujourd'hui me parle fort wallahi en étant élève j'ai toujours été apprécié par mes professeurs et envié par mes camarades de classe du point de vue intellectuel mais la seule unique chose et pour laquelle j'ai envie J'ai envie, mes amis, a été toujours de ne pas avoir une maman douce qui pouvait m'écouter et partager mes sentiments durs. Euh, d'une part, d'en parler même parce que c'est un sujet difficile à aborder. Je sais que j'ai là, j'ai là pu euh, bénéficier de mon talent dans mon parcours, mais c'est une mère après tout yàlla na ko yàlla sàmm macha allah waaw ah, bonne résilience Babacar Sarr xam nga c'est ça mooy sujet la bu difficile à aborder te d'habitude damay wax ni la personne la plus saine ci famille bi mooy doon victime bi. parce que lu tax parce que yow da ngay gis ni da ngay booy màgg sax ngay remarqué loolu da gis ni ah man aw ma problème ak kenn ci mbedd mi man samay professeur dañ ma bëgg samay tante dañ ma bëgg samay bàjjen dañ ma bëgg ñëpp dañ ma bëgg mais avec dangay tu es perdu parce que référence bi gën a rëy mooy sa yaay pourquoi ta mère ne t'aime pas yow tu fais tout pour la plaire mais sans aucun résultat yow da ngay dem ba say émotion da koy dom te parce que sa yaay xamoo kañ lay crise ak kañ lay wadd yow da ngay dem ba nga xam ni boo ñëwee tey nga defal ko lu neex daal ne non tey sama yaay dina kontaan jour boobu la gën a mën a damm sa moral parce que elle va se comporter d'une manière boo xamante ni d'une manière maanaam euh, narcissique gi dañu imprévisible yow mënoo xam kañ lay crise kañ lay def ay ay ay ay ay chose ba yow da ngay dem ba da ngay yëm a adapté wu par ses émotions yow pour nga dund il faut nga adapté wu moom ci ni mu mel tey da ngay jëm pour survivre parce que xale Euh, émotionnellement parlant nekkul ko apte pour mun a confronter certaines situations vu que mënul xuloo mënul xeex amu ci droit parce que waajuram la li muy mën a def rek mooy adapté comportement am mécanisme de défense bi muy def mooy domptay émotion bu ko defee nag nga màgg yow problème bi ngay njëkk am mooy da ngay gis da ngay am problème pour wane sa émotion da ragal sax parce que da naan tey su nit ñi gisee samay émotion égal dañuy gis la genre féminine surtout nag bu dee góor nga parce que d'habitude narcissique comme ni ma koy waxee d'habitude yaa xam taaw bu góor nga wala taaw bu jigéen nga wala caat nga wala yaa xam loo doon mais bu fekkente ni tey euh, doom bu jigéen la amal problème yow doom bu jigéen bi képp ku jigéen da ngay amal problème yow ci sa dund jigéen ñi ngay amal problème bu dee doom bu góor nga amal problème la la même chose yow bu góor bi ci sa dund jigéen ñi ngay am problème d'habitude même sa mariage bu la yàlla dimbaliwul dëgg boo matul nga am jabar ju narcissique comme sa yaay et que après yow sa problème mooy lan moo tax may ama jigéen ñi problème avec ma mère ça ne pas avec les femmes ça ne pas parce que yow sa référence en tant que femme ki la indi ci àddina waroon la jox identité bu baax ci femme yi vision bu baax ci femme yi kooku daf koy yàq daf ko briser du coup yow tu ne peux plus faire confiance aux femmes munoo attaché woon émotionnellement parce que tu as peur comme ni nga attaché woon sa yaay mu détruire mu détruire cet attachement là tu vas te sentir mal tu ne veux pas t'étaler, tu ne veux pas t'ouvrir parce que là, ça te fait très mal. Et que c'est dangereux. Et malheureusement, suñu société day créer ces genres d'hommes. Après, les femmes se lamentent. Waaw, sama jëkkër du ma jox affection, sama jëkkër nii, sama jëkkër non. Sans pour comprendre sa jëkkër, qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a fait devenir comme ça? Lu tax mu mel nii? Lu tax tey mu am cette euh, posture-là? il se défend de tout euh, son puissance pour bañ a nekk nit bu vulnérable nit bu fragile pour ñu sax saxee émotion bi du coup ñu nekk de mères yi nga xamante ni yow boo nekkee ñoom yow tu te sens coupable te defoo dara yow tout le temps c'est de ta faute yow lu réer yow lañ koy jiiñ yow lu yàq yow lañ koy jiiñ yow ñëpp la gën yow ñëpp la gën a baax yow ñëpp la gën a lii te au fin fond de toi tu sais que tu es une personne merveilleuse mais tu n'arrives pas à l'étaler lu tax parce que la mère qu'elle dafay jël remettre en cause sa gentillesse ak sa propre être tu ne te sens yow sa jëm bopp tu ne peux pas t'accepter loolu day nekk des problèmes psychologiques et des traumas yi nga xam ne daf lay topp ba ngay boo moytuwul tant que jógoo ci faj ko tant que jógoo ci jël conscience parce que aussi pas de guérison la déjà que tu reconnais que yow amoo problème c'est elle la problème moom mi am problème donc c'est à elle de gérer ce problème et que là nga commencé def seen détachement émotionnel parce que li gën a metti ci situation bi mooy quand une mère est narcissique doom yi dañuy dañuy wër tout le temps di wër amuuram amul boo xam ne yow ba ko juddoo ba tey yaa ngi koy war te doo ko mos a gis moom bu tayee mu wan leen def la bëgg-bëgg mi wula tagg la yëkkati la bu subaa mu daane la xas la ba nga mel ni yow mor sa fa bay rek sax lay te bu ko doon def sax ci dus nga ni waaw waaye boo moytul dina yàq sa der ci famille bi yëpp ci say sœur ci say frère ci say nawle ba léeg-léeg am na ci mère narcissique yoo xamante ni du ñu éviter woo sa propre jabar xas la ba nga ràpp yàq la lu mel ne xamee def la du n'importe quoi nga dem yow ba sa jabar dafay toog di la culpabiliser parce que naan la waaw sa yaay kontaanul sa yow sa yaay respecté woo ko sa yaay nangam et li muy wax sa yaay li muy wax malheureusement yaay la de mais malheureusement li muy wax dara du koo tëgg rek. donc ce sont yoo xam ne malheureusement bu la saw ñu ngi lay nuyu di la ziar faana mu ne ñëw naa <laughs> yaa ngi si biir macha allah ma jox nuyu nañ la ziar nañ di kontaan si yow. Uh-huh. Ismaël Baye mu ne je suis une personne ultra sensible directe et j'ai remarqué que je me j'ai remarqué que je ne m'entends jamais avec euh, les personnes les, per les personnes narcissiques euh, ce que ce soit dans la famille, au travail, aux études, ailleurs. J'aimerais savoir s'il y a des moyens de vivre en harmonie avec ces gens-là, car c'est difficile d'accepter ces maladies dans la quotidien, on est obligé d'avoir, euh, on est obligé d'avoir faire avec eux. Bien sûr, les narcissiques sont dans la société. tey damay wax ni bu ma sañee ma wax ko famille boo dugg fekk fa pervers narcissique waaw man maa ko wax amul famille booy dugg fekkoo ni yaay ji wala papa duñ pervers narcissique wala kenn ci say frères sœurs duñ pervers narcissique donc ceci dit que kon c'est obligé c'est primordial que da dund ak ñoom bu fekkente ni tey dafa nekk sa famille dina nekk si sa entourage dina nekk si fi ngay liggéey dina nekk sa professeur wala mu nekk ñi ngay jàngale wala mu nekk partout société bi foo tourner di nga dajeek les personnes narcissiques léegi nag c'est à nous de d'adapter pour jéem a xam naka la ñuy parce que narcissique li la ci mën a musal rek mooy yow tu adopte li nga xam ne mooy sa affirmation soi nga xam sa bopp xam say limite xam yow yaay kan xam li ngay bëgg xam li ngay bañ aussi nag bu boobaa nga daal di am sa caractère teg ko tu seras immanipulable narcissique mën na lay may jàmm rek bu xamee ne mënu la manipuler narcissique boo xamee ne bu ñëwee di wax nga xam ne li muy wax ay fen la boo xee ba pare ngeen ko ah waa baax na doo ko commentaire de parce que boo commentaire mu am bunt bu muy soxlo narcissique bu ñëwee ndax dañuy victimiser wu foo leen fekk ñoom rien ne va ñëpp dañ leen di tooñ ñoom daal ñoom ñoom amuñu faute ñoom ñëpp dañ leen di too ñëpp dañ leen di lii kenn bëggu leen kenn nangamu leen tout le temps mooy nit bi nga xam day lamenté wu sama njaboot gi ba ma leen juree ba tey ak li ma def ci yéen li ma daj seen kër baay du ma sacrifié j'ai sacrifié ceci def naa lii il vous culpabilise et que moom il tout temps dafa nekk tort léegi nit bi mel noonu tout le temps xam nga ñun Sénégal dañoo am empathie nekk nit ñoo xam da sensible nit ki bu ñëwee tey di la jooytu ay problème am tout le temps mu lay jooytu en ce moment da ngay <laughs> parce que foofu la coow la nekk parce que booy compatir mu xam ne yow tu es sensible et que da nga am empathie foofu lay soxlu nag commencé di installer benn amitié di installer benn compatibilité mooy nit bi nga xam tey bu la xamee capable na di lay woo di lay woo yow mën na am amitié bi da koy jéem a ñooru moom du la ñooru de la lan saraax après yow tu te dis que mais kii daf ma gaaw a dugg doo yëg amitié bi kañ la fondé parce que daf la koy imposer daf et que là une fois que mu exiger la ko yow boo amul benn maanaam am fulla ak fayda bañ a jël amitié boobu parce que ça ne t'intéresse pas ça ne t'arrange pas bu boobaa dangay lang ci ay mbaalam ci ay girifam ngay lang dootu mën a génn kon naka ngay mën a jëflanteeg narcissique mooy nit kii ak ku mu mën a doon boo xamee moom xamoo narcissique la am déet yow tu prends tes gardes depuis le début nga di ci dem ndànk-ndànk su nga amal sa bopp li may wax ni nit ku nekk nga téyel sa bopp say secret parce que tey nit koo xamul boo ko xasee secret te xamal narcissique tôt ou tard dina mujj ci mbedd mi nit ki daal li ñuy li lay protégé daal mooy sa jukko jukko bi nga am ak narcissique yi mooy am forte personnalité am na loo xam ni tey sa caractère parce que gis nga narcissique seen problème mooy tey bu ñu la gisee nga dëggu dañ lay ragal bu la mënul dugg dañ lay yàq bu buñ la gisee tey nga nekk une personne sincère une mooy dugg la jël say insécurité jël sensibilité jël li nga xam ne mooy fu ñu la mën a téye téye la foofu di la chantage ak di la manipuler bu ñu xamee ne loolu moom c'est difficile mënuñu ko am ci yow bu boobaa moom jàppal ni yow sutur àddina bi yëpp sa der bi dina yàq ko dina salte ndax sa der bi la jàpp ngànk ko di koy yàq di koy yàq di koy yàq di ko bay rogee toog ni ma ko def fekk boo demee defoo ko dara tu n'as rien fait mais vu que moom mënul mel ni yow te mënul la dugg la va se parce que yow da ngay yàq territoire am da ngay ubbi bëtu nit ñi tu vas démontrer sa son vrai visage et moom loolu daf koy ragal donc il faut que ñun ñu jéem a wu am développement personnel pour mën a dund ak ces genres de personnes là dans la société parce que ñu ngi fépp dans la société sinon da ngay sonn da ngay yàq sa àddina et que malheureusement foo tourné dajeek ñoom te boo leen gisee yow bu dee am xam nga touti xam-xam ci àddina rek day xam nit ñi son pas des personnes normales. loolu nag mooy problème société sénégalais donc surtout nit bi nga xam ne da nga ne da nga ultra sensible leen di neex nit ñi ultra sensible hyper empathique est-ce que xam nga narcissique yi ce sont personnes yooyu la gën a ciblé waaye boo amee froideur ba mel ni man dañ lay xool daal kii ni mu bone kii di nangam sangam loolu la parce que tax parce que da froide parce que yow am na ci yoo xam ne doo ci dugg. am na foo xamante ni tey doo fa jéem a kii narcissique par exemple man mii di coach chaque jour gis ay narcissique dañuy na ma lii coach sama jëkkër def na boo duggee de incohérence y a beaucoup de mensonge y a beaucoup de choses yoo xam ne tey da nga koy déceler dëgg dama lay tegaat ci sa kaw ay erreur xamal la ni lii ak lii ak lii ak lii on se comporte pas comme ça on se comporte comporte pas comme ça avec son mari on se comporte pas comme ça avec avec sa femme et que laa nga gis ne gis nañ ne amuñu complice parce que <laughs> malheureusement <laughs> man du ma seen complice et que boobaa da ngay gis ne dañuy jël seen daal fëx daw wala ñu dem moom xamul dara di am na ko ci amoon moom it dafa ñëw jotee jëkkër ji jotee waajur bi ñëw wax wax wax bi ma ko mettre face à ces faits dafa ëlbatiku tey. ñëw daal di ne ma waaw man dama bëggoon xaw ma bokk say formation xaw ma la ma ne ko formation yi commencé wul waaw dama bëggoon est mën nga ma préparer benn formation personnalisée ma ne ko loolu du ma ko def parce que du sama domaine d'habitude damay yoo xamante ni c'est pour beaucoup de personnes mu daal di jékki-jékki daal di ma mais bu boobaa kon man nan laa war a def ma ne ko ah xanaa nga xam formation bu commencé bizarrement mu commencé di ma yónnee des messages yoo xamante ni je dama ko doon ignorer parce que message de provocation la tontu ko bu la provoqué nag parce que narcissique d'habitude bu la provoqué ba soon gis ni tontu woo ko parce que yow tu es sur tes gardes là elle nangam sangam sangam sangam pour yàq sa der il faut savoir se protéger tout temps euh, ne pas tomber dans leur piège parce que ni ñu lay piéger dafa mën a bëri mu ne goro narcissique bala asalaamaaleykum euh, meer yu meer yu taqe ngay am foofu it is impossible man bu ngeen mënee bind bind yu leer dina baax de xaadim soow mu ne sama ndaw si moo ma jaaxal ndax xamuma lu mu ba lu mu bëgg dafa dafa lan dafa bon si man waaw da ngay définir bu baax parce que le mot bon dafa yaatu lool tey boo ne nit ki dafa bon rek dafa yaatu waaw bon il faut que ñu définir ko lan mooy bon waaw boo waxee nag bon bi ban façon bon la la on pourra on pourra développer incha allah euh, seen Abidjan mu ne est-ce que euh, mu ne am na solo dama la statut sama WhatsApp souvent merci beaucoup waaw loolu moom c'est avec un grand plaisir. Abu euh, Zakaria li waaleykum salaam wa rahmatullah Ibrahima Touré. mu ne Sénégal si diine lañuy làqatu pour utiliser eh, ndaw wala jigéen moo tax jigéen ak ndaw son war a jàngi wallahi sëñ bi ay waay ku commentaire lii Ibrahima Touré yi billaay sa dëgg gi nga wax sa waxoo ko ndànk effectivement effectivement dañuy làqatu ci ginnaaw diine làqatu ci ginnaaw eh, diine bu dee jëkkër la làqatu ci ginnaaw diine bu dee yaay la wala pàppa la di la chantage ci diine te yow boo xamul si diine am confusion ndeysaan dangay mel ni ku ñu takk yow dangay dund ci kaw suuf si mais dangay mel ni ku ñu tëj ci biteel <laughs> allahu akbar dangay gis ay nit ñoo xam ne ñoom seen dund dangay gis dañuy angoissé jooy tey xale yu jigéen yu bari ñu ngi nekk ak seen ay waajur na di daanu ay rab am ay crise épilepsie fekk na waajur yi nekk pervers narcissique la ñu am ñoom ay traumatisme am ay trouble ñu naan jinne la rab la fekk du jinne du rab li leen dal mu ngi seen biir famille bu ngeen ñëwee ma faj leen parce que sont des personnes yi nga xamante ni dañu dañ maanaam dañuy yàq seen progéniture dañuy yàq seen njaboot dañ leen di détruire et que la xale yu jigéen yu bëri ak jigéen yu bëri ñu nekk ci néegu sëy traumatisé wu dof ndax lan ndax jëkkër boo xamante ni daanaka dara naan moo la gën a jàng diine loo wax mu indi la ay ak xadis manipuler nit ñoo xam ne capable nañu fenal yàlla ak yonentam pour lan pour défendre ñoom seen ay bëgg-bëgg ma waaw lii ko wax les pervers narcissiques sont des personnes yoo xam ne capable nañu créer ay xadis wala modifier ay aaya pour défendre ñoom seen ay bëgg-bëgg mu nekk nag lu doy waar. mu nekk lu doy waar aaya yi nga xamante ni dañ koy utiliser ci situation yi normale ñoom dañ koy utiliser pour défendre seen unique intérêt mu nekk nag lu doy waar. macha allah il faut que nag bu boobaa Aminata Rasoul maa ne macha allah coach Fatima amatina solo jazakillah xayra ak yow tamit mu ne maa ngi jàng. di di jàngale leçon yi am na solo vidéo yi aussi merci beaucoup macha allah yal na yàlla yombal maam Penda nuyu nañ la ziar nañ la di la jaajëfal di leen wax ngeen partage direct bi aimé ko ki Kiné nuyu nañ la Ndeye Fatou Sène nuyu nañ la de Assa Diop macha allah ñu ngi lay nuyu di la ziare Amadou Sall Fane Cissé mu ne ndekete narcissique balaa nga ko xam fekk. manipuler nala ba nga bëgg a ba nga bëgg a dee si sa kaw frère yàqamti c'est que grâce à toi on a eu comprendre ces jeux macha allah ndey mari sumaare waaleykum salaam wa effectivement narcissique moom boo dëkkee moom balaa nga koy xam fekk boobu yow moom macha allah soxna Faat Fay ñu ngi lay nuyu di la ziyaare mu ne sama ma dafa tàng direct te day xaste rek en plus elle développe toujours les idées négatives mais je pense qu'elle est ignorante de son impact et son comportement peut avoir sur les enfants moi ça fait un bon moment que j'essaye de comprendre pourquoi elle est comme ça mais ya mais yaay dafa fort et je prie toujours que suñu boroom euh, bañ ko topp macha allah da wax lu am solo mooy des fois li ñuy woowee tàng deret Sénégal dafa naqari deret wala dafa dafa tàng pervers narcissique Sénégal koo dégg ñu ne dafa tàng dafa naqari deret mooy pervers narcissique la parce que nit bu normal ban intérêt di tàng ci ay doomam di bax di ngeer da compliqué teg ci compliqué mooy lan mooy yow doo xam ndax weex na ndax ñuul ndax weex na ndax ñuul na ñoom daal daanaka dañ lay fooye ci muccal da ngay gis ku dem ba am 40 ans loo wax mu ne sama yaay maanaam te nag dañuy théorise seen yi ah, ma laaj sama yaay yow looy may sa jabar damay laaj sama yaay loo def ak sa jabar damay laaj sama yaay parce que lu tax bañ nga sa yaay mer parce que tout le temps bu xamee ne may nga sa jabar dara wala defal nga sa jabar dara te yëgaloo ko yow tey kaas si tàng loolu problème la. et que yàlla dina ko ci topp waaw parce que lu tax mooy yàlla suñu borom dafa wàccee alxuraan képp ku kuy narcissique moom yàlla dana la topp ndax narcissique ay nitu ñaari kanam lañu ñu ay nay nit lañ yoo xam ne dañ max lañ ci société dañuy yàq société quel que soit li may wax nag des fois doom moom bu la yàlla waa joxee waajuru narcissique jàppal ni nattu la nattu boobu mu doon nag moo waral yow doom bi yàlla suñu borom def la ko nattu pour nga def am gagner le meilleur de toi nekk nit boo xamante ni macha allah dangay jéem a fexe di defeeru ci son emprise parce que day am emprise gis nga am na film bu ñu fi woon Sénégal mu nekk film bu ama am solo mais sénégalais yi théâtre yi ñu leen di jox di ci def développement personnel ak psychologie duñ ko jàng film doon daw ñu koy woowee emprise gis ngeen cette femme là je me je me rappelle même parce que seetloo na quelques épisodes gis ngeen emprise bi mu amoon ci ay doomam nga gis ni emprise boobu tey da ko am ci ay doomam di leen fen di leen manipuler caat bi rek moo nekkoon ki nga xam ne elle a pu comprendre jeu yaayam et que tout le temps mënuloon accepter yaayam elle avait mal elle se sentait mal elle ne pouvait pas. vivre avec di jéem a yee mag frère bi ak sœur bi frère bi ndeysaan nekk koo xam ne il n'a pas de personnalité nekk ko réer amul droit sax bëgg ki mu war a bëgg ndax yaay ji tànnal na ko jabar indil na ko imposé na ko jabar ji pour mu takk ko bi mu demee ba gis ki mu bëgg nga gis ni foofu viom chamboulé na parce que yaay ji mayetu ko dara mu ngi commencé il était le il était euh, le le le le fils parfait là il est le fils euh, mën nañ ne démoli le fils bi nga xamante ni dañ ko maladie lu tax parce que dafa dem di bëgg koo xamante ni yaayam bëgg ko kon li ngay gisee impact yaay bu am emprise ci ay doomam yaayu narcissique parce que cette personne là bi nga xamante ni moo nekk euh, moo nekkoon waajuru xale yi ci film boobu ñu wax emprise waa ndaw si nu mu tuddati waay ay waay fàtte naa tur bi euh, film bi Marodi la doon am comme euh, ay waay italien Marodi la doon am. mu nekk film boo xamante ni ñu ngi koy woowee emprise tey ku ko seetaanul na ko dem seetaan parce que film la boo xam ne day wane réalité ci yenn yaay yi te moom li muy affiché mooy dama bëgg samay doom ba a ma sama bakkan doom damay aar samay doom mu ngi ci njabar gi mu ngi ci sëriñ yi mu ngi ci partout dama bëgg samay doom ba tax na mu ne sëyul teewul tey mu ngi dem di def naka su dul mais pour moom dafay protéger ay doomam mu terroriser doom yi mais teg leen ci confort defal leen lu nekk sonn seen jàng elle s'est démerdée elle a tout fait pour doom yi nekk de des personnes stables mais nag en dépit de cela doom yi dañ ko war di jox affection ak amour di ko jaamu di ko yëkkati di ko màggal d'une manière bu inconditionnelle doom yi dem ba nga xam ne ku jigéen ki amul personnalité parce que tànn na ko jëkkëru paa bu am alal et que ku jigéen ki mu dafa mujjee di dem di njaaloo di adultère et que ku mu bëggoon fexe na ba ne ko kii du donc impact bi ngeen di gis ci film boobu. da leen di tout simplement li nga xam ne rek mooy euh, mooy doomu aadama yi ni ñi esprit malsain ba pare li nga xam dëkk suñu réew mën a jël situation boobu ñàkkal ko fayda jàppee ko normalité parce que lu tax mooy dafay xew ci kër yu bari ñi dañ koy nëbb parce que am na ñaar si yoo xam ne seen jeu dañ koy nëbb suul ko rafetal ko am na ñoo xam ne seen jeu danaan ne dàng ñu boole ko colérique boole ko bëgg a contrôler yor le contrôle de toute situation yor contrôle bi ci lépp seen jëf seen ay wax lépp da ngay gis ne tout temps ñu ngi jéem ma teg ay dil ñu ngi jéem a nax seen njaboot gi ñu ngi jéem a di leen wan ne man je suis une mère parfaite seen njaboot gi fu ñu toog dañ leen di tàgg mais pourtant au fin fond da ngay xam ne sa yaay dëgg la elle a beaucoup fait matériellement waaw ci matériel elle fait tout parce que dafa am lu muy jënd parce que tey bu defee loolu tey yow doom bi à chaque fois ubbi sa gémmiñ mu ne la ak lu ma la defal mën na la waññal nag di la konteel ca biberon ba ca berceau ba ca lum la lépp dala koy waññal te lum lay xamal mooy loolu c'est pas gratuit toi tu dois tu dois le payer mooy yow tu n'as pas ton mot à dire waroo màgg ndax narcissique lu mu gën a ragal mooy ay dama màgg jël seen indépendance wala ñu sori ko parce que dafa am victime te moom bu amul victime du dund moom day am victime soit mu nekk ay doomam wala mu nekk ay gorom tey bu fekkente ni goro yi euh, doom yi dem nañ goro ñu fi ndax société sénégalaise lu tax narcissique euh, yi di dund dund bu neex parce que dañuy am victime fu ñu toll ndax lu tax mooy société bi mu constitué woo en famille excusez-moi dañuy dund en famille di dund en ba tax na tey bu fekkente ne narcissique bi mu ngi fa nekk pour mu am pour mu am ay nit yu kii pour mu am naka laa ko mën ay victimes day nekk lu yomb day nekk lu normal donc ñu war a xam ne tey en tant que waajur bi nga xamante ni tey da ngay gis ne bu yoree ay doomam d'habitude ñu nekk ay xale da ngay gis koo xam ni narcissique boo xam ne moom day négliger ay doomam moom ay doomam carrément mën nañu xëy jàngi sol ay daal yu dagg pourtant ñàkkul ay doom mën nañu feebar di leen faj pourtant ñàkkul ay doom mën nañu tey ji mën na jur doom doom ji toog fii di jooy nga jàkkaarloog moom nga ni ko mais sa doom jaay jooy doo ko jël noo dafa xale bi mu ngi jooy bay yëkkat bay xëkkat bay sonn ngay gis xale bi di mais du ko jël mën na gis doom di salte mu sañ sa ba jekk romb doomam ñandax yi di bakk tey couche bi di wadd du ko laal du ko <laughs> subhanallah donc day nekk des personnes yi nga xam ne mën nañ négliger seen doom négliger boo xamante ni la nga gis narcissique mën na dëkk ak doomam gis ndëkk doom bu jigéen gis ñu koy sàkk wala ñu koy violer mu gis ko dëgg ci tànkam ça ne l'intéresse pas du ko lijjanti du ci def lu mu ci war a def ñu naan sëy ba lay lijjanti effectivement moom tey am na yoo xam ne du ko def pour yàq son image tey mën na gis tey doomam ñu koy abuser wala di ko maltraiter doo gis mukk mu réagir si nekk koo xamante ni tey ay doomam dañuy dund yoo xam ne tey société bi duñu ko mën a gis parce que dañ naan tout simplement comme ni ñu ko waxee yaay la léegi nag yaay dafa am foo xam ne fa la war a commencer fa la war a yem ndax say doom dañu am droit ci yow ba pare yow nga am devoir ci ñoom te devoir yooyu ak droit yooyu du la wàcc ba yowmal xiyaam en tant que une mère tey boo gisee tey nit ñi di jàng di nekk ay yaay yu parfait di sonn ci seen njaboot narcissique doomam jaralu ko nii nii parce que moom doom ji daf la jur pour mu nga nga nga nga satisfaire émotion tey da ngay gis narcissique ay doomam balaa ñuy am 10 ans jox na leen liggéeyu kër ga yëpp boo matul ñooy fóot ñooy bale ñooy raxas xale yu tuuti ñoo da leen jox liggéey yu ëpp seen capacité moom en attendant moom mu ngi balaa xel ma daan mu ngi ci xew yi wala mu ngi ci ndaje yi wala mu ngi ci nekk une femme influente nekk une femme boo xamante ne elle est tout le temps doox ay njabootam du ñu am du am seen jot du am jotu jëkkëram du am jotu maanaam moom daal jotu boppam la am wala des gis ko tey parce que dañu bëri posture mun ñu nekk ñoo xam ne aussi elle s'investit tellement dans leur foyer parce que tey day dem euh, am benn place bu taxaw ci société bi mais en même temps place boobu moom société bi da koy da koy permettre muy mën a tëj gémmiñu jëkkëram parce que tey jigéen la boo xam ne tey mën na yëkkati ay millions jox ko jëkkëram Euh, bu ko defee jëkkëram di ko tagg di ko lii mais ci suuf mu ngi manipuler jëkkëram mu ngi koy chantage mu ngi koy dundaloo affaire boo xamante ni pro jëkkëram ci boppam moom du comprendre lu xew mën na ne sama jabar boo fi gën et pourtant tey bu ko soxla woon guddi capable na takk sërëm ba mu dëgër ne dara du fi am te boobaa dara du fi am jëkkër ji buy doxaan capable na yabal ay nit ñu ray ka muy doxaan baa ñu dóor ko baa ñu agressé ko baa ñu def ko n'importe quoi na toog ci sëriñ liggéey jëkkëram da koy yeew mu ne ngoddu capable na liggéey wujjëm liggéey moom képp ku nar a jaar ci territoire am yow amoo chance yow boo amee wujju narcissique moom xamal ni yow sa àddina moom daanaka yàqu na ba pare dama ko fenn moo tax damay wax gis nga góor ñi ak jigéen ñi nañu xam bu baax fu ñuy dugg parce que narcissique moom tey da gis ni tey malheureusement bu nekkee te nag noonu la ñu mënee wujjee ndax ñoom bu ñu naree wujjee moom seen na ñu wujjee yow da ngay gis ne yow mënoo ko parce que yow da nga sincère ñoom sincère wuñ seen lépp tricherie la seen lépp ay politique la da gis di dund ak ñoom di gis foo bi ñu foo di gis nit ki naafeq gi mu naafeq mais ngay gis tey ni muy naxee jëkkëram mën na dëkk jëkkëram sans tàkkaat dimanche jëkkëram du xam sa femme ah, xam sa femme elle est yow mi sa si kër ba di ko gis di xam ne yow ta femme te daf lay largué boo moytu yow la ñuy diaboliser parce que yow lañ naan yaa ñëw ba bëgg wax lu amul. parce que moom capable na comme góor ñi dañu bëgg xaalis capable na liggéey di xaalis pour ne ko dama lay dama lay sëyal dama lay jaamu dama lay defal dama def lii pour tëj gémmiñam parce que puissance bi mu daf ko bëgg am ci naan ci jënd nit ñi daf leen di jënd ak li nga xam ne mooy xaalisam jënd leen ak matériel jënd la ngay tranga en moom elle fait ce qu'elle loolu nag nekk problème boo xamante ni c'est vraiment désolant léegi nag yow bu fekkee ne da ngay sëy ci belle famille mel noonu yow wala nga am wujub mel noonu wala yow tey nga nekk goro boo xam ne yow da ngay sëy ak moom mais yow sa jëkkër da ngay jékki-jékki da ngay yaakaar yow sa jëkkër sa jëkkër da nga ko bokk ak sa goro man gis naa ci ñoo xamante ne des fois pour seen jëkkër tëdd il faut que yaay gi de tey sa jëkkër day wàcc amul droit toog ak yow jabar ji di waxtaan day toog ca day toog ca yaaja ba yaaji libéré ko tàngi yaaji libéré ko du dem <laughs> <laughs> yàlla ñu yàlla musal chat <laughs> ñu ngi lay nuyu di la bi wax macha allah merci beaucoup à toi aussi you know donc nga gis ni kon euh, aywaay Facebook yi nag Assane Diallo itam ñu ngi lay nuyu di la euh, mu ne ci pervers narcissique lëmb na réew mi effectivement donc ci loolu ci lañu mën a xamee ni kon pervers yi sont des personnes yi nga xamante ni dañu dangereux ci société bi et bu ñu nekkee sa yaay da ngay dem ba da ngay toog di xool di gis ne yow malheureusement sa àddina yow da ngay tourner da ngay tourner tourner tourner mais doo réaliser dara problème mu émotion ngay am problème mu sentiment sa dund gi boo moytuwul yow du jàkk tout le temps da gis ne d'habitude day nekk jigéen boo xam ni macha allah ku mën na toog ci say du bouger du rendre mën na jur kër ga ba mu fees nit la ko xam d'habitude day jaboot ndax moom moom bu xasee ba sëy moom da jafe na nga gis narcissique buy tas xanaa ñu fase ko mais buñ ko fase moom du tas dina toog di la mbugal yow bi ba pare boole koog nag eh, jural la kër ga ba mu fees ba yow a fase sax da nga naan fukki doom yi waa ñoom boole koog nag di wan waa mbedd mi que moom c'est la femme parfaite parce que tax mooy da ngay gis ci njaboot da ciy daw day def parce que sénégalais matériel la ñu xam pour ñoom matériel parce que domaine relation affectionnelle da nga gis ni manipulation bi mensonge yi euh, chantage affectif yi mais c'est grave euh, Samira Fatima mu ne naka la ñuy lan mooy euh, solution bi solution bi mooy développement personnel solution bi mooy nga génn ci traumatisme boobu solution bi mooy nga comprendre yow ban position nga amoon ci doom yi comme moom doom yi équipe football la day am attaquant am naka lañ koy beneen bi ay waay ki nekk au milieu dimbali leen ma ci tur yi dama damaa xamul football ci am góol bi am ki nekk ci ci ci ci euh, ki défenseur maanaam doom yi dañuy dañuy occuper ay position ci biir famille bi donc du coup am na xale bi nga am na ci doon bo xam ne moom may enfant roi bi kooku lu mu wax noonu la kooku moom da ko teg seen kaw te yéen mënu leen ci dara kooku même ku mu jotee moom mooy am dëgg lu xew ci famille bi moom la ñuy laaj yow mi nga nga xamante ne yow yaay enfant bi nga xam ne daf la dénigré yow dara mën na xew ci bi te kenn du la déedéet moom du divorcé yow da nga am sexe pervers bi di wax di wax ak ñoom yombul di ñoom duñ la bàyyi doo leen bàyyi sa kota ñàpp moom koy boo duggee ci ñoom da ngay dem ba dégg nga naan ndeysaan jabar ji da koo liggéey xanaa gisoo jabar ji ñu ngi koy maltraité da koy saaga da koy xas ah ndeysaan waa ji day yeppar yeppar rek comme ginaar gu tawte waaw madame ça fait des mois ah mënuma jot ci moom nangam sangam te doo takk ñaar doo doo doo doo du la jox euh, mu ne mi du la jox du la jox boppam te te tamit lu yàlla xam doy na bu ko defee yow da ngay gis ni seen jëkkër dañuy faible faible sont des hommes la yoo xam ne sax duñu am yërmande am affection am les milieux du terrain <laughs> mu ngi noonu ah mu ngi noonu donc da ngay gis ni seen jëkkër dañuy dëkk ay góor yu baax am yërmande am affection mën maanaam mën a teral jigéen te ñoom dañuy tànn nag xam nga pervers nag macha allah mën a tànn waa léegi pervers duñu jàngal lan la ñuy tànnee jëkkër ak jabar yow da ngay gis bu góor bi jabaram day gën ci jabar yi mën a muñ toog mën a ko mu koy maltraité di ko xas di ko saaga des fois ba ci dóor des fois du la jox dépense des fois nangam te da ngay toog foofu di jëkkër bi tamit la même chose da ngay gis jëkkër bi day mën a sëy day toog nangul ko nangul ko nangul ko mais est ce que tamit Sénégal nekk fa jigéen pervers xawul tane tuuti nga yaakaar doom yi kay ñoom ci jaax waaye bu doon góor ñi rek kon ma ni <laughs> kon ma ni <laughs> kon ma est ce que jigéen ñi jooy du metti di ngeen di jooy est ce que di ngeen ut ay coach pervers ñu daal leen <laughs> na ñoom du ñu tas du ñu bouger du ñu randatu te seen sëy moom góor bi moo koy sëy te ñoom macha allah lu ñu bëgg <laughs> day <laughs> day gis ni li ñu bëgg la ñuy def ñoom seen ay loi bopp la ñu yor tey góor bi bu nee sax may kilifa xaw fi pour tuuti nangam sangam ñu dellu ginnaaw ne la waaw yaay kilifa li nga wax rek mooy am ci kër gi waaye ci suuf ña ngay def lu ko neex dañuy xar kër gi yow bu ñu la nee sa moo fi def lii da ngay daal di bañ pervers bu xasee ba ñëw ba sëy ci kër gi boo amul chance mu daal di lay tàqaleeg say yaay tàqale la ak sa sœur tàqale la say mbokk dina la wan ni moom dafa parfait wan la ni sa waa kër ñoo bon ñoo soxor yow nga daal di gëlëm ëlëm la mi jël ko daal di koy dem nag ba beru ndax moom loolu la bëgg ndax moom tant mu ngi nekk nit ñi du mën a exercer bu baax de parce que moom profession am eh, il faut que mu exercer ko nag en individualité en solo mais nag bu fekkee da ngay nekk ci famille bi du mën a exercer profession bi du a dem mu ne narcissique dafay menacer dem mais du mës dem dem narcissique du ñu dem ndax ñoom yow yaay seen proie ñoom bu xam nga tey gaynde bi téye bi téye bi bérëb euh, kéwelam ba pare téye ko te naan ko dinaa la fi bàyyi xam nga du ko fa bàyyi ndax kéwel gi nga rëbb da nga koy consommer kon kooku du mën a dem de narcissique moom yaay kéwelam ndax dalaa rëbb nag ba am la sonn ci lool kon soono googu mu daj yëpp xam nga ne du ko bàyyi noonu muy dem du coup ñu gis ne tey da ngay gis ni bu la manipuler ba jëlee la ci belle famille bi ba nga wéet moom yo da ngay toog nga ne mais man dañ maa gëlamoon wala dañ maa sëlamoon mais en fin de compte kii monstre ndax yow li muy wane ci biti yow mi di góor foo toog ne sama jabar nii la mel dañ la naan yow góor ñi dañoo sikk te nag ba pare pervers nag di tax nag nekk jigéenu pervers daal dee am ndawal mooy ginnaaw jigéen ñi dañoo mën a jàmbat mën a jooy pervers bi jigéen bi fu ne lay toog di jooy sama jëkkër def na ma li sama jëkkër def na ma lii sama jëkkër def na ma lii te nag bu boobaa sama classe gi dañ koy daal di gëm parce que sama classe nga xam ne xamuñu luy pervers nit ki fu mu jooy sama jëkkër def na ma lii yow doo jéem a gëstu doo jéem a càmbar doo jéem a poser question xool xam kii li mu la wax dëgg la am dëgg bu boobaa société bi yëpp koy jàppale pervers paree ci yow buy sëy yow moom du la moom du la ñaan baat moom dem ni ngay xamee jigéen bi pervers jigéen bu dul pervers mooy pervers du la pervers bu la ñaanee baat mooy yow xëy na amatoo xaalis mba intérêt yi nekkatu fa wala yow dem nga bu bëggatoo manipuler la bu boobaa nag day xam ni la dinaa la ñaan baat waaye dinaa la yàq sa àddina dinaa la liggéey tey di nga dem ba am jabar tey boo amee jabar pervers di nga dem ba fase ko nga am beneen jabar moom muy ñëw di defaat ci sa sëy bu bees bi maanaam day am doole ñëw utiliser doomam yooyu mu amoon di leen jaxase di leen monter di leen yëkkati di leen teg contre kan contre yow maanaam yow doo a libre yow boo amee euh, ex ex jabar wala jëkkër pervers sa tu le temps son son proie yow doo libre parce que yow foo turne da nga nga gi da ngay gis ne yow tu pris au piège rawatina boo amee moom doom mooy amoo chance pervers yaa ko mën a fas fukki at amaana amoo moom doom dara mu jékki-jékki rek wala allo dama laa gëj a dégg commencé renouveler lien ndax ñoom duñu bàyyi seen proie commencé manqué victime seen liste la ñoo dañuy vérifier liste ah, ma xool xam naa su ma koy war na disponible boobaa ñu woola nag di xaar sa disponibilité même ku góor ki pervers moo lu mën a doxaan jékki-jékki euh, relation nga fàtte ko ay ati ati ati at day jékki-jékki nekk en manque de victime rek mu woola dama toog sama xel nekk ci yow nga yàppoon dafa la bëgg bëggu de dafa affaire ba commencé raaf rëbb gi commencé saay bu ko defee day xool fan mu daal ne ak ñoo civilisé nag <laughs> présenté wallaay dañoo civilisé bu dee ay jigéen dañuy civilisé bu dee ay góor dañuy civilisé te neex a présenté neex làmmiñ ah mën a macha allah mën a bokk ci société bi moo tax société bi dafa leen di accepté te dañuy naqaree xàmme mu ne ko pour dëgg pour gën a la mën a jekku moo tax muy bëgg muy bëgg beru seen part personnelle effectivement parce que tey euh, bu dëkkee ak nit ñi du mën a du mën a def liggéeyam comme il se doit mais pour mu mën a def liggéem comme il se doit il faut tey mu dëkk beru ak yaw tey da ngay gis pervers même bu dee góor la xanaa mu ñàkk les moyens mais bu amee les tout tôt ou tard dafay dafay ber appartement am ak yow parce que là dina la mën a torturer te kenn du gis li xew te yow foo wax nit du ñu mën a gëm li xew parce que nit ñi pour ñu mën a gëm li xew il faut que ñu gis ko mais bu gisee ni yow sa jëkkër apparemment li muy wane lépp dafa parfait yow boo bëggee boole ko nit ñi sa sa waa famille sax des fois dañ la naan mais yow sa jabar ji dafa baax mu ngi ñuy teral mu ngi ñuy jox lii mu ngi jox laa mais yow la moo tax doo téye sa jabar ji kii dafa bëgg sëy kii jural na la ay njaboot kii defal na la lépp lu maanaam jigéen la boo xam ne day wane ni sëykat la dafa mu toog ah sama jëkkër lee ah sama jëkkër la te nag kaay bu toog ak ay moroomu jëkkër ay moroomu jigéenam moom il a elle a le mariage parfait ah moom dala yi man sama jëkkër fii laa ko fas ay man sama jëkkër yabu ma de ah man sama jëkkër yéen da ngeen koy weddi effectivement effectivement moom mooy kii torturer jëkkëram man góor du ma yab man sama jëkkër nangam sangam man sama jëkkër moom mu may sëyal man sama jëkkër daf may baleel di ma laabal xaay di ma toggal te lim ko waxee loolu la amee fenu mais bi yéen du ngeen ko gëm parce que da ngeen di jàpp ni wax ni ay dëbbali ñaan la ah ah nga naan moo day sago rek di day nangam rek di déedéet saguwul de ni mu koy waxee noonu la amee parce que nag daa dafa tànn jëkkëram ndax ñoom dañuy tànn dañuy xool góor boo xam ne amul personnalité góor boo xam ne dafa bëri ay blessures de l'enfance parce que xëy na histoire métti na góor boo xam ne ndeysaan famille dañ ko dégg dénigré ndax ñàkkul ni góor bi yaayam pervers la il a tellement maltraité que dafa am problème avec commencé nag wan la ni yow da am chance ndax tu as la femme tellement parfaite ku la bëgg di la jaamu di la def lii parce que góor ñi lañ bëgg yëkkati la balbalal la ba ca kaw ngay bëgg a naaw ñu dee teelal la ci suuf wan la ni yow da doon waaj a nekk roi waaye fii mën naa fi reen et que nag seen manipulation xam nga jigéen de nature yala da koo bindee mu mu mën a mu mën a manipuler mën a joytu mën a wane sensibilité yow bu ko defee yow en tant que góor da ngay toog di laajte ak di xool yow sa place fan la féete ci kër gi ndax yow sa place bàyyi dala koy xañ sa place jëkkër dala koy xañ yow sa yow kër gi daal muus nga rek bu naan dëwlañ boo xam ne yow amoo fi place yow da ngay toog di seetaan télé bi les décisions c'est elle qui le prend l'argent c'est bopp yow sa sa lépp moom moo koy <laughs> mu ne pervers n'aime pas être seul euh, il déteste la solitude waa n'aime pas être seul waa au cas où mu war a divorcer wala mu war a wala nga war ko bàyyi loolu moom da koy ray loolu moom xalaat ko ci àddina waaw mu ne coach góor yi góor yi lay tagg si biti di la xas ci biir ci pervers yi lañu bokk ñoom ñooy ñooy càmmiñu jigéenu perverse bi ñoom ñaari kanam lañu am ci biti moom dañ lay tagg yëkkati la a ci kaw boo duggee ci biir ñu xas la xam nga loolu lan lañ ci bëgg parce que xam nañ ne après yow foo dem jooytu yow la ñuy décrédibiliser yow la ñuy wax ni yow doo wax katu dëgg parce que gis nga que chaque jour mu tàgg la a defar tey il faut que tey sa jëkkër foo toog nga di ko tàgg sa jabar foo toog nga di ko ko defee yow boo ñëwee di nettali sa problème dañu naan sa problème mu nekk da nga ko monter pièce jamais qu'ils ont des problèmes de ménage ils veulent toujours montrer que leur ménage va trop bien effectivement pervers muy bu bi muy bu jigéen bi muy pervers bi perverse bi muy càmmiñ beeg jigéenam ñoom bu dee jigéen bi moom foo toogee gis jigéen boo xam ne après vingt ans de mariage nga gis souffrance yu yu yu muy dundaloo biir këram ak tey jii bu victimiser woo bo bàyyi bu subaa boo toogee ma naan eh man moom du problème mariage moom këram moom am problème te d'habitude da am ay problème angoisse am ay problème jëkkër yu effacé wu la ñu am jëkkër yoo xam ni zéro personnalité mais dañuy ndeysaan da ngay gis ni kër gi boo duggee kër pervers bu dee jigéen la da ngay gis ni jëkkër ji mooy yor rôle yaay doom yi moom la ñuy gën a jege moom la ñuy xaritool moom la ñuy gën a takk moom la ñuy a bëgg parce que papa ji mooy gën a duu mooy gën humain moom yaay ji moom yuuxu gëdd xas saaga la xam doom yi mu di leen teg des choses yoo xamante ni vraiment dafay ëpp seen capacité boo gisee situation boobu da ngay situation bi dañ naan góor ñi dund li bëriwul xam nga tax mooy violence psychologique faite aux hommes c'est très très très euh, méconnu méconnu mais lu am la dëgg la nag dafa parce que tey bu ñu xool pervers yi ci góor yi kon góor ñi di maltraité jigéen ñoo gën a bëri mais dañuy gis ni tey góor jigéen bi nga xam ne tey dafay maltraité psychologiquement te góor maltraitance psychologique da koy teel a rey day gàtt fan mu ne quand ils sont en colère ils s'en prennent aux enfants effectivement yàlla bu ñu xam ne tey ndeysaan euh, seen jëkkër dafa bëgg doom yi day jël doom yi di leen nabb nabbee du leen dóor du leen xas du leen saaga tey bu meeree jëkkër ji day jàpp doom yi ndulli dóor xas saag bu ko defee ndeysaan euh, bi di dagg du ci mën dara ndax yaay dafa jege doom mu nekk nag situation boo xamante ni tey da ngay gis ne pervers bi daal moom daal royaume moom yéen ñii nga xam ne yéen a équipé royaume moom papa ji nekk xëy na premier ministre bi doom ji nekk xëy na serviteur yeeg yooyu yéen ñëpp da ngeen war a conforme ci moom ay bëgg-bëggam mooy moom li mu bëgg li muy laaj ay attantam lépp dañ ko war a defar mu ne euh, le plus rapport le le plus dur dans sa dans ça c'est quand c'est les enfants qui subissent les conséquences c'est-à-dire le manque d'affection d'amour matériel effectivement parce que malheureusement xale yi moom malheureusement dañ koy dund parce que lu tax mooy xale euh, il est amul défense tey bu fekkente ni pervers bi dafa am ay doom dafa am ay ay ay proies yu macha allah parce que lu tax mooy xale amul défense xale il ne peut pas il ne xam ne mu ngi koy dund amul ku mu koy jooy tey nit fan lay toog naan sama yaay moom may def nangam loolu c'est inimaginable société mel ni sénégalais tey da ngay société man daje naa pas quelque temps benn femme boo xam ni. mu ngi faju mu ngi dem def traitement cicatrique mu ngi dem def ay traitement si wàllum jinne yeeg rab yi bi li problème mooy yaay jee perverse yaay ji mooy perverse et que tey bi mu demee commencé di def ay traitement psychologique di commencé di jëflante ak maak moom avec des séances elle a vu que l'unique problème c'était ça elle est restée bouche bée te xamoon na xam na ni sama yaay ji dafa problème xam na ni y a un problème y quelque chose qui ne va pas waaw donc ñu gis ne il faut que nous savoir détecter ça. Au vu de tout ce que vous, ce, ce que vous dites sur les pervers, c'est très difficile à reconnaître au début d'une relation car il apparaît et les gens, <clears throat> gens presque parfaits. Ouais, Fatou Cham, euh, damay wax ni c'est très facile par contre xam nga lu tax mooy pervers dafa dafa dafa naka la koy dafa envahissante dalay envahir c'est pas normal nit di la envahir parce que nit ñu normal ñi bu ñu xamee ni dañuy moytu dañuy jël seen garde bañ ku leen wor ku leen maanaam dañuy surprise pervers il n'a pas peur c'est ça moom mooy problème bi kon moom boo xamante ne moom amul lu muy daw di parce que <laughs> moom mooy moom mooy poison bi tey mu ngi mel naka laa ko mën a misaale nit ku armé wu ak ku désarmé wu tey nit ku nit ku ba fees buy dugg fenn day dugg ak sécurité parce que il est armé yow mi désarmé wu bu bu dee nga dugg fu danger da xool da ngay a kii donc c'est ça yow mi sincère désarmé wu tey booy relationné ak nit tu vas faire attention da ngay moytu da ngay jàngat pervers non pervers tey muy même bu dee jigéen la tey da ngay gis ne bi xatoo da lay dugg saraax lay def yow da ngay jékki-jékki tu te rends compte que yaa wax sa problème li moom doo ko xamal dara wala bu lay wax dalay wax ay wax yu vague ay wax yu yaat wax yu amul bopp amul genn yow li muy wax doo ci mën a tënk dara bu ko defee yow boo demee ba gis ni yow ki nga amal affaire nit la ko doy waar te période boo xamante moom capable nañu doxalante sa jëkkër ji ñu ngi fiy déggee bi naan jëkkër ba xarit ba perverse la ndax perverse moom balaa wuy neex mooy mu ñëw seeg sa jëkkër parce que moom daf la yàgg ñii daf la yàgg euh, daf la yàgg ciblé dafa yàgg gis ni yow a as une vie parfaite dafa yàgg gis ni yow vie bi nga am mérito woo ko moom moo ko mérité donc non seulement day ñëw installé pare mais da lay balayer après ñu ne ex ami gala perverse la moom moom moom fu fu am division fépp am ñam mooy fi nga xamante ni foofu bu fa duggee non bomb dafay kalaate après na ñu ŋàbb ko après nag mu ñëw wane daal di jël waa ji manipuler ko jël xel bi naan ko jël yuur bi boof ci ñu ne dañ ko liggéey kenn liggéeyu ko pervers moo raw njabarkat dama ne yi seen njabar day jàpp ci saa sur le champ njabarkat yi seen bés mën na jàpp mën na bañ a jàpp pervers moo rek il est vivant à l'extérieur de lui et vide à l'intérieur de lui dans son cœur il n'est jamais satisfait même si on lui offre tous les biens du seul monde il n'est jamais satisfait parce que day jéem a créer ay sur ay situation pervers li tax mu colérique lu tax tey nga gis pervers di déverser colère am sur ses enfants di déverser colère sur les personnes wala di wane benn toxicité bi parce que pervers bu créer situation bu rocambolesque situation bu violent situation bu metti boo xam dafay dafa mel ni vidéo bi dañ koy signalé de du ngeen tapp live bi ngeen ko baax na daal vidéo bi léegi xaw tuuti mu arrêté bi donc il faut que ngeen amee leen live bi ngeen partage ko def leen yu xonk yi point yi parce que laa mu ngi doon bëgg a arrêté léegi bu arrêté rek xam leen signalé nañ ko donc jéem leen ko donc ne prévoir da ngay gis ne dafay nekk li nga xamante ni pour se euh, c'est pour se remplir da ngay gis ni ak euh, situation bu passé il devient très gentil léegi nag yow au loolu moo lay réeral mooy da ngay jëf di gis nit ki day jëf di mer indi colère accuser la culpabiliser la xas la wax la du n'importe quoi quelques minutes après nit ki baax comme pas possible mën na ñëw la wala ni non dama tàng xool c'est juste que si c'est juste que cela parce que man là je me sens mal nangam xam nga des fois dama dundoon par exemple tey bu nekk ak xam nga dama dundoon sama mariage auparavant on m'avait tellement maltraité là dama nekk situation boo xam ne su ma meree je m'emporte bu ko defee jëkk ji ndey yërëm ndeysaan a a baalu parce que tu as souffert auparavant donc man maa la war a man maa la a nangam et que et de à chaque fois parce que tax parce que etc ak passé boo xam ne dafa douloureux passé boo xam ne moom moo doon torturé traumatisé tu deviens sa victime parce que daf lay wax ni passé boobu moom moo nekkoon victime te comme moom moo nekkoon victime moom la ñu woon traumatisme yooyu tey am na droit dund loolu ko bu ko defee yow nga naan a ah, sama jëkkër dafa sama jabar dafa fiir wala sama jëkkër dafa fiir daf may sax di accuser daf may faral di ma di ma di di ma topp di installer ay caméra ay audio di n'importe quoi pourquoi parce lool boobu muy exercice yow loolu muy exercice yow yow yaa koy ëlbati ko défendre li gën situation boobu mooy pervers seen victime yi leen défendre yow mi muy mal daraan non parce que dafa metti auparavant looloo tax muy def lii donc dama koy comprendre mu koy xam nga rek nangam sangam fekk na boobu yow yaa ngi yàq sa bopp balaa ngay comprendre boobu day ta trop tard joxe extérieur ñooy def ñooy réparer problème yëpp parce que ñoom dañu wane ne amuñu problème ñoom wane ni seen bu dee moom mooy doon meeru ku fa am sëy bu naqare mooy conseil waaw sa jëkkër nangam ko sama jëkkër fa ma ko teg sama lafu sër ne mbuu du effectivement bis waaw noonu la ko téyee kii lafu sër ko ne mbuu du ne mbaate ñëpp ki koy jëkkër ji dina xam bi ñu la meloon mère bi dafa jaboot macha allah mais il arrivé des moments yoo xam ne daan xëy suba teel jëkkër ji dafa daan dàq génn ci jëkkër ji bu tukkal euh, lay jël teg ci buntu kër ndax ragal mère bi ndax lan soit disant que ndeysaan manipuler doom yi doom yi képp ku liggéey weer xaalis mère bi nga koy yónnee sañoo yónnee sa papa xaas na boo ko yónnewee dina pétard dina la xas sa papa deful ci kër gi dara man maa may fay ndox may fay courant man maa joxe lekk maa joxe naan kon lu ngeen liggéey na gen ma ko jox bizarrement noonu la ñuy def bu ñu may seen papse dañ làqatu xam problème dikk na moo tax daal mu ne ils sont trop en victimisation surtout concernant leur passé effectivement parce que am na parce que nga non seulement au début dafay victimiser wu tout le temps mais au début il est trop gentil pour être vrai relation bi lay wan yow si jëm bopp sa biir intuition yaa ngi sentir que ni ta te gis nga intuition boo koy déglu rek doo am problème ak pervers yi sa intuition à chaque fois nga gis ni quelque chose dafa trop trop trop trop pour être vrai trop pour être vrai tôt ou son vrai visage dina la ko wan te loolu ñun ñoo ci war a bàyyi xel ñun ñoo war di xool di discerner suñu ay relation excusez-moi, et quand ils connaissent son passé, ils n'hésitent pas à le divulguer au cas de séparation. Bien sûr, la xamal dala koy wax lu mu la xamal dina non seulement dina ko nettali foo xam ne boo yow bëggoo ñooñu xamal la parce que xëy na ñooñu itooyu ñoom mais dina la siiwal mais dina yàq sa ah, ah, dalay susal parce que surtout na bu amul lu la accusé dina la susal la susal la susal man damay gis ne ndeysaan day gis ne tey da ngay sëy mais dala si soxla yow nga xam ne taxawaal ko ne ma ma nga xam ne nangam sangam et que nga gis ay jigéen yoo xam ne dañuy dem ba nekk en dépression dem ba di atteindre la folie ndax situation yi kon loolu il faut que ñu bàyyi ci xel El Hadj Moussa Diop mu ne maa ngi ziar soxna ngi delloo ziar kon il faut que muy góor muy jigéen façon nit ñi boo dëkkee ak ñoom sauver sa bopp sauver sa njaboot mooy façon nit ñi teel a daw ci ba ngay ami tànk ndax boo nekk ñoom di nga problème santé man gis naa ci ay jigéen yoo xamante ne tey dañuy sëy pervers dem ba seen jëkkër am ay impuissance sexuelle lu tax parce que dañ lay dañ ba di la xas yow ci sa capacité ci ni nga mën a jëflanteeg di la ci xas di la ci mettre en cause di la wan ni mel nii wala meloo naa wala meloo na wala performant wo yow dem bay wu sa capacité doom nga dem ba nga xam ne man day commencé di yeewu ci yow nga dem ba commencé góor boo xam ne daanoo mer léegi dangay mer léegi tra amatoo tranquillité yow da ngay dem ba da ngay effacé wu dem bay rus sax di jëflanteeg say moromu góor dem ba yow mootoo affirmé wu dem ba sa ngi kii live ñu koy signalé de def leen attention kon ñu gis ni tey loolu yëpp day nekk ay ñu bàyyi ci xel waaw ay problème yoo xam ne il faut que ñu bàyyi ci xel parce que tey le fait que ñuy gis ni euh, waa ji euh, ndaw si di gis ni waa ji tey par exemple mën na am ay xarit yoo xam ne mën nañ ko yee wala mën nañ ko wax dëgg wala naan ko non booy da nga ñàkk fayda non mais waroo nangu li donc day gis ni xarit bu mu gis ne par exemple man dama leen nettali ay cas yu concret am na ci xam boo xamante ni ndaw si bi mu gisee xarit bi gënoon jege jëkkëram dafa gis ne xarit bi day commencé di yee jëkkëram di ko lii xam mu def dafa séduire xaritu jëkkër ji séduire ko laa wax de fexe ba tëdd ak moom ba pare ne ko tëjal sa gémmiñ loo waxati sama jëkkër ci man ma ne koy dag maa violé imagine leen euh, nit ku capable def loolu parce que ñoom pour seen territoire baax nuñ ko mën a ñegee dinañ ko ñag parce que pervers moom muy góor muy mooy sa ñaareelu tur muy góor muy jigéen infidélité mooy seen ñaareel parce que ñoom pour ñoom séduire ba ci rakku jëkkër ji ba ci ba ci ba ci ba ci xaritu yi ba ci papay jëkkër ji ñoom ta nag foofu nag la ñuy gën a foofu la ñuy gën a amee seen seen seen seen ndawal parce que foofu noonu dañuy gis ne tey bu fekkente ni teelu ñu baliser terrain bi ñooñu dañ leen di yàqal bi ko ñoom leen di yàqal donc leen di teel a jël def leen seen biir euh, seen biir poche loolu yëpp lu tax pour fexe euh, tëj gémmiñu ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a wax bu dee jigéen nga kom moom nag bu boobaa mu ne la ah da ngaa a nopp sama jëkkër yow kaay ma woon la ban heure jot bu boobaa elle est capable yow moom boo amul chance sa tur ci sëriñ yëpp Sénégal yi dinañ fa teew ndax pervers mën na mën na nekk jigéen boo xam ne day wane ni dafa yiw day wane dafa gëm yàlla di muur wane diine muy góor wane diine di jàng an teewul njabarkat fu mu nekk xam na ko ndax ay naafeq lañu ñaari kanam lañu yor yoruñu jikko bu bu juste tey luñ la wan sa façade la lii nekk ci biir ak li ñuy def c'est tellement démoniaque waaw tey moo tax man leen film bi nga xamante ne mooy film emprise ku bëgg a xam yaayu perverse mi mal dem leen seetaani ko xëy na film boobu moom c'est allé trop loin mais même dans la réalité noonu la ñuy comporté woon waaw doom yi daal am doom boo xam ne daal moom mooy nekk ci kaw moom la ñuy ping-pong am doom boo xamante ne mooy nekk ci suuf surtout na doom bi nga xam ne gën a yeewu doom bi nga xam ne moom mooy gis la réalité moom mooy xam vrai visage am di ko jéem a démasquer kooku moom tey nga dee mu ne lii yëpp nag développement personnel moo si am solution faana effectivement développement personnel moom lii moo ci am solution parce que moom moo ñuy jàngal nan la ñuy dundee nit ñi mel ni société bi te duñ ñu gaañ te duñ ñu lor bu boobaa bu yàggee dinañ dem ba dootuñu amati proie te bu ñu amul proie elles sont obligées ñu jàkkaarloog ñoom seen bopp te bu ñu jàkkaarloog seen bopp c'est tellement douloureux parce que ñoom dañuy gis ne euh, nit bu démoniaque bi ñu doon bëgg ñu jàkkaarloog moom du coup dañuy euh, foofulewu ci biir population bi ci biir nit ñi ci biir famille bi ci biir ñi leen jege pour di jël seen bon di ko par exemple di pervers naka laa ko mën expliquer dalay def lu bon balaa ngay yuuxu moom mu yuuxu pour nan pour ñu la yow yaa bon mooy nit ki la romb dompat la ba nga kaata la ba mu ne balaa nga naan ay moom mu yuuxu tëgg gémmiñam ba nit ñi ñëw mu ne yow yaa ko gaañ léegi kooku moom boo dëkkee moom nan ngay def mu ko xamante ne xeex suuf lay xeex li mu lay def dala koy def ci suuf nit ñi duñ ko gis yow ngay jàmbat di jàmbat kenn mënul percevoir yow la dal mu doon Xadija Rasulullah machallah mu ne timbem na solo femme bi capable na de ah cap coupable nañ lu ko raw coupable nañ lu am na ci benn cas bu fi am temps yi femme bi nu mu def pour wax la ni pervers doom yitteelu ko dafa am doom doom ji am deux ans da daan bàyyi doom ji di ko teg ci appartement pour deux jours di dem ci faram déggu leen ma de di leen ci faram ndax nee na faram bëggul doom ji danaan tëj doom ji ba doom ja dee bi doom ji dee mu ne moom loolu yàgg ko def du problème te ñëpp dañuy wax ci mbedd mi ne no ndaw si dafa bëgg doom ji tout le temps mu ko doon mu ngi ko doon doxantool mu ngi ko doon jëndal ay yére mu ngi ko doon toppatoo ñëpp dañu gisoon ni nit bu amoo buy jox doom affection mu ngi koy remplir di ko fóon mu ngi koy lii ku ñu laaj mu ne c'est une maman parfaite comment est-il possible mu capable daan bàyyi doomam ci appartement pour di c'est un déséquilibré comme bu ñu ko xoolee bi ñu defee test yi nga xam test psychologique yi fii en Europe dañuy gis parce que moom bu ay ay ay jonkooram taxawee lu mu gis rek mooy doom ji moom yoonam newu ci da koy teg foofu dem dem dem satisfaire ses besoins pour wan leen ni pervers dafa doy waar c'est dafa doy waar mu ne le pervers que je connais il est toujours malade il n'y a pas toujours qui se passe ah laal nga point bu ma neex xam nga pervers dañu am benn trouble bu ñuy woowee tamit euh, ay waay l'hypocondriaque euh, l'hypocondriaque nekk trouble boo xamante ni daanaka dafa am pervers yi hypocondrolé mooy pervers yi foo leen fekk dañuy jàmbat maladie surtout bu jigéen bi bu jigéen bi capable na téy kër gorom du mos a jël njëriñ ndax fu ñu ko fekk sama ndigli sama biir bi sama nangam bi bu ayewul bu ayewul moom dafa wér dina sañse dina rëy rëy dina lii bu ayee dafa feebar day feebarantu di feebarantu di feebar te capable na ci biir feebar yooyu par exemple am na benn waay boo xamante ni histoire bi mu ngi ko mu ngi ci net bi sax waay ji nee na bi mu xamanteeg ndaw si ndaw si daf ko gëmloon dafa am cancer du sang nee na mu mu mu daa de am daa de jox ko am peut-être daal daa ñu nekk ci relation bi nee na mu sonn ci jox ko xaalis muy faju di ko yónnee échographie di ko yónnee ay lii di ko yónnee ay laa ndekete moom ba ci médecin yi sax am na ci médecin yoo xam ne dafa doon dem ci médecin di wax dafa am cancer du sein def na chimiothérapie falsifier document def du n'importe quoi i ndaw su doy waar pour wax le pervers capable na dem ba gëmloo jëkkëram sa des xam seen jëkkër dañuy tukki fu yàgg ñoom bëgguñu am doom mais ñuy gëmloo waa ji tout temps dama ëmb bu waa ji dem ñëw ñu gëmloon ko dama dama ëmb ëmb bi nangam waa ji ñu ne xaalis di leen pomponé bu waa demee ñu ne ko ëmb yàqu na bu ko defee ñuy laaj waa waa dama war a faju waa ji di man gis naa koo xam ne jëkkër ne chaque mois dama ko daan yónnee ay cinq cent mille ay huit cent mille parce que ne dafa may traitement yu muy def ci sëriñ yi ci hôpital ci nangam parce akay juba an mu ne de mago <laughs> seytaane sur terre ah ah xam nga yàlla suñu borom dafa wax ni shayatinul ins dafa am shayatinul jin dafa am te effectivement shayatinul ins dafa am am mais ñun dañuy wax ne rek seytaan yi nit jinne la xam mais seytaan bi duñ ko jël en considération te effectivement pervers narcissique mooy sër maanaam seexu shayatinul jin parce que moom ci boppam shayatin moo tax ñu ne la nit bu malsain la nit bu malveillant la nit boo xamante ni lépp lu muy def boo ko seggee lu muy def ci lu baax c'est uniquement pour wan nit ñi parce que image am il faut que mu sàng deram il faut que mu raxas deram il faut que mu wane benn facette boo xam ne société bi da koy nangu mais bu wéeteeg yow ak lu muy def ci secret looloo lay wan nitu ñaari kanam la nitu ñaari kanam la mënuñu ko woy lu dul naafeq mooy nit ki gëmul yàlla ci biir xolam ndax bu nit boo gëmee yàlla sa biir boo wéetee doo def bàkkaar ndax nit ke nga xam ne yow pour nga def bàkkaar mooy bu la nit ñi nga def bàkkaar bu la nit ñi gisee doo def ndax ragal yàlla mu ngi valide nag keroog ba nga wéetee ci la ñuy xam sa ragal yàlla ndax nit ki xam ne expert yoo gis naa jigéen yoo xam ne sa témoigné na ma ne ma man sama jëkkër jiite ci jumaa imaam la mais bu ko neexee fajaat bu ko neexee fajaat du jóg julli keneen mooy jiite wala mu porté malade te mën naa nelaw ba midi soo ko jóg boole boole tàkkusaan ci problème yi pervers daal pervers la moom moom diine ji sax dañuy gis ne da koy def nekk ko nekk imam uniquement pour nit ñi ne ah ak jàng tere alxuraan uniquement neexal ko pour nit tey bu fekk boo ko fekkoon muy la xam ne yow mi da nga jàng daf la jaloux maanaam daf daf la dafa am jaloux ci yow dina jéem a rafetal julleem rafetal alxuraanam pour lan pour yow nga daal di koy ñee wala pour nga ne ah macha donc moom il ne fait rien pour rien mu ne de gis na boo xam ne pervers bi. dafa gëmloo jabar ji ni dafa am cancer pour convaincre ko ci benn affaire bu mu ko bëggoon defal defal ko effectivement mi noonu pervers yi def lii moo ci gën a ndaw li ñuy def lii moo ci gën a ndaw te lu ñu wax ay fen la bu ko defee ngay jooy yaakaar si jëkkër dafa am cancer mu ngi ci phase finale nangam sangam dugg fi génn fi fekk na yow dara jotu leen loolu pour lan pour yow nga jox leen parce que ñoom affection moo leen bu ñu ba gis ne affection bi yow liñ ciy laaj yëpp doyul wala liñ ciy laaj mënoo leen ko jox bu boobaa ah lu ñuy def ji créer ay scénario di créer ay théorie di créer ay choses pour lan pour yow nga jéem a dugg ci biir jeu bi et que là ils ah, bu ñu demee ba gis ne jeu bi jàppul bu ñu hésité na la dama doon wax non amul c'est juste c'est juste dama la doon nax rek waaw li ñu ne dama doon fen de dañ naan dama la doon nax rek <laughs> non moo garaaw pervers n'aime pas aussi les jeunes du mois de Ramadan ay waay boo bëggee gis pervers bu wooree day mer xol bi day tàng day bu dee xale yi bu dee jigéen la moom ñëpp lay ramassé ndogu gi danaka ñetti ñetti ba <laughs> ba metul ku weeru koor xam ne weeru day feebar day feebar carrément porte ba du woor boo xëyee dama amee ulcère mënuma wóor wala dama ëmb docteur bi nee mu fekk na ëmbul jotu ko ay waay gis naa pervers boo xam ne weeru <laughs> <laughs> day naan dafa amee UCR du woor day togg mbaxalam bëccëg di ko lekk bu dee góor ñi moom dañ ciy gis koo xam ne moom weeru koor boo moytul dina budee xale yi bale kër gi kenn du la may jàmm parce que ñoom mënuñu jaamu yàlla moom dafa dis ci ñoom jaamu yàlla dafa dis ci ñoom dañ ciy gis ñoo xam ne créer ay maladies uniquement pour l'islam teggil leen koor gi te loolu moom musiba gënu ko mag ndax ci ngay xamee ni ndekete doomu aadama pour nga xam ko dëkk il faut que nga moom gis ay actam moo tax ñu wax ni nit ki del xool ay jëfam del xool comportement wam te bàyyi wax ci ndax pervers dañu intelligent dañu am xel tey pervers yi man mii dañuy ñëw ci man di ma jéem a manipuler di ma jéem a dëbbali ñaan di ma jéem a euh, te nag macha allah boo moytuwul la plupart samay formation damay nekk ci jigéenu pervers yi dem ci amoon naa ci koo xam ne chaque jour laa la wax day dugg non dama feebar dama lii dama la jàmbat fii waa non man moom sama jëkkër bu jigéen ñëpp ñëwee jooy sama jëkkër lii suma jëkkër laa moom bu ñëwee si li femme bi nga xam ne moom am problème mariage donc léegi xamante ni boole ko dalay wax ni carrément ni la sama kër samay doom huit ans la ñu am toog ñooy togg ñooy yàq ñooy bale ñooy def lépp moom amul responsabilité maanaam PV c'est une personne irresponsable bu dee góor la tey boo amul chance dëgg yow kër gi boo moytuwul yow yaay liggéey yow jigéen di yor sa bopp yow boo moytuwul bu dee góor la du la jox dépense boo feebaree du la faj du def minimum chose lu a lay def boo ko ci forcé wu ñettoo ko ci du ko def dëkkee nag di la xas ak di xuloog yow du la may jàmm di la terroriser pour lan pour rek nga geddalu lay jox bu dee jigéen la tamit la même chose devoir bi yàq bi bale bi kër gi set nangam sangam ñaari extrême ñoo am soit nekk pervers boo xamante ni daanaka dafa salte da lay délaissé maanaam kër gi du ko defar doom lay bàyyi liggéey kër gi bu dee ko moom dafa bëgg boppam dafa bëgg yaramam yaramam du sonn moom lu diis wala def def liggéey yoo xam daf a nekk waaw ah, moom daal boppam la bëgg waaye daal li ci jëm moom mbedd mi moom euh, kër moom du ko defar dina sañse pour mbedd mi dina defar pour mbedd mi mais daal lépp loo xam ne daal dafay daal di yàq euh, yaramam du ko def pervers même bu dee góor la da ngay gis tey moom mënatoo gis jabaram di peinture kër gi yoonam nekku ci du bouger lampe dina yàqu ci kër gi mënu koo defar tey boo nekkee mu nga nekk jigéen boo moytuwul di nga di nga mujjee nekk débrouillard parce que il est irresponsable amul yërmande yoonam nekkul say daal vu que moom kër gi moom yoonam nekku ci moom res irresponsable boobu yow boo soxlaa débrouiller defal ko sa bopp waaw kon nga gis ni pervers yoonam nekkul tey jigéen bi li muy wax naan waaw sama jëkkër xam nga su dama ko war a taajal dama ko war a lii bi am new ci de day xam ne jëkkër bi sa bopp man kenn du ma rey pervers bi moom xoolul société bi waa de jigéen di la war a jigéen di la war waaye bu nekkee jëkkëram ci pet li muy défendre loolu jëkkër ji day tiit parce que dinaan mais kii du moom moo doon défendre naan jigéen lii la war mel jigéen nii la war a mel et que bu nekkee moom dangay gis teg jigéen ñëpp moom bokku ci <laughs> problème day daal di am sax ndaw mu ne maa kontaan macha allah Rana Cissé mu ne bu absenté kër gi bu ñu absenté kër gi ñëpp firi waaw waxati de moom kay boo leen gisul kër gi ñëppay firi même bu dee la bu ñu génnee ba pare nag li ngay xamee pervers mooy ñëpp seen wax la ñuy wax fu ñu toog ñoom ñooy am maanaam seen tur tey boo amee pervers ci bu baax li ma la wax bu ubbi sa xel bi tey famille bi ki ngay gis ni moom la ñuy gën di tudd parce que dafa jaaxal famille bi tout le temps muy créé ay boucan muy créé ay problème mu ngi ay problème mu fu ñu toogee turam la tudd defal ma ko ci liste bi nga may sama jàmm waaw mu ne waxal waaye coach amuñu yërmande de ku amul am yërmande koo xam sa naqar moom boppam rek la moo compté moom mënul mënul mënul kontaan bu nit kontaanee parce que pervers problème bu mu gën a am mooy kenn warul kontaan moom moom rek moo war a kontaan tey kër gi boo juumee tey nga wàcc am bonheur wala nga am succès wala nga am promotion sa liggéey wala tey nga am maanaam information bu la neex bo ñëwee di ko yëgal da ngay gis ci kanamam que ni da lay wan man lii intéressé bu dee en public nag mën na kontaan accolade la ki bu dee en privé da lay war ni carrément war na doy na war na sax na ku nekk en colère fu mu jaar dina créer boucan tey pervers boo ko wanee sa kontaante jour boobu fu mu jaar dina créer boucan fu mu jaar dina créer li nga xamante ni mooy musiba dina créer li nga xamante ni tamit mooy euh, problème pour lan pour yow nga dem ba sa joie boobu yàqu sa joie boobu mujjee nekk malheur waaw Khadija su mu nekk mu ngi noonu rek euh, dalay def ba pare am ci war a mun comprendre Xadija sa olof yi moom man liir yenn olof yi dafay dis ci man de débrasser perve doo débrasser ci moom de <laughs> perve rek ma de bàyyi ko dafa mel ni jihaad la ilaha illallah laa jël ñu def seen pervers <laughs> bu dee jigéen la boo ko bàyyi balaa nga koy bàyyi moom dina la booleeg àdduna bi yëpp jaxase la ak àdduna bi yëpp dina bu la mënee liggéey dina la liggéey bu la mënee chantage dina la chantage bu la mënee koñe dina la koñe elle va tout faire ba doo ko bu dee góor tamit la même chose bu dee baaj bi moo ko yore du la ko mos a may xanaa nga ànd la jaxase yow génn ci sëy bi day mel ni yow da ngaa nar a génn ci prison boo xam ni euh, juge libéré yow la bu ko defee yow da ngay nekk ci problème ak situation boo xam ne daanaka yow da ngay toog ba caag nga ni mais lii est ce que sëy jar na ko yow nga bëggoo ma par exemple pervers da lay wax ni carrément ma la fu mu toog mu ngay xas yow baaxoo yow da ngaa bon la bàyyi li gën a yéeme mooy loolu mooy moom da lay baaxoo mais du la bàyyi xam nga loolu problème nit baaxoo bëggu ma da nga koy bàyyi mu dem mais déedéet da lay xamal la yaa gën a yées nit ñi yaa gën a bon ci nit ñi yaa gën a nay ci nit ñi yaa gën a nangam ci mais na eh, du la bàyyi euh, c'est bizarre malheureusement loolu lay wan loolu moo wan ne li muy wax sax gëmu ko mu bi lay ko ci vérité gis naa koo xamante ni xaritam mo am jëkkër mu koy gaaruwaale rek <laughs> muy loolu effectivement ñoom daal moom bu fekkente ni tey am nga bànneex bu la neex wala sax ñu jëm yàq si tey jii bu amee xel boo xam ne bu fekkente ni tey amul jëkkër wala moom sëyam neexul yéeg teg teg teg wala jëkkëram di doxaan wala jëkkëram sikk yow dina fexe ba naan la moom góor kay di nangam sa jëkkër nanga ko vérifié de sa jëkkër dina la solo solo solo sol ba yow nga ñëw naan ko ah li nga waxoon dëgg la de nangam sangam laa day kontaan day firi parce que lu tax mooy léegi yéen ñaare yam <laughs> di danaan ñaw léegi di fuy fuylu naan sama jëkkër daf may toppatoo sama jëkkër daf may nangam góor ñi yam mu ngi noonu nga problème yeewu leen bu ma neex pervers bu dee moomul xew mi du vedetu xew mi xanaa mu nekk vedetu xew mi mais bu dee moom mooy vedetu xew mi bu ñu a xew mi daan ni ah macha allah daan ni yu diw de xewam baax diw de nangam lam fa def lam fa lii xew bi moom na doon vedette bu nekk vedette xew ba day saboté xew bi même bu nekkee vedette xew c'est dul pervers bu dee jigéen la tey xew bu amee ci kër ma nga ca togg ya ma nga ca sànce ba yéen gaaw a pare añi eh na marié bi solu e eh na photo wu e indi ko fii e jàppal fii teg nit ñi pression sonal leen xëcc leen mais daf leen di sonal sonal ba yéen xew mi du ngeen xam nu ngeen koy xewee muy bu góor bi muy bu jigéen bi bu dee permis bu góor moom ak bu bu jigéen bi yëpp a ci am koyte mu nga ci togg eh, sama gan yi dama war a teel a aj dama war a teel nanga dama ku solo ah de solo leen bi dañu war a photo na donc dafay bëgg di afficher famille tout le temps bu dee jigéen la aussi day taxaw nit ñi xew bu amee foo jaar bu ko am pervers xew bu amee balaa jant bee so fokk xuloo bu tàng am fokk mu jaxase carte yi fokk mu mer bu mënul gis ku mu xulool capable na woote ba ajak jak cible moom fokk mu am ko boobu pervers bëggul gis euh, bonheur parce que xew signe de bonheur la xew euh, ak événement ay korité ay tabaski loolu signe de signe de maanaam convivialité la non non non moom loolu daf koy gêner parce que manque d'intelligence émotionnelle bi mu am day tax du mën a supporter et que ñàkk mën a supporter buy exploser du ko tey dina créer boucan créer problème boo xam ne nit ñi dañuy toog ne mais mais mais lii jar na ko loo mais pour moom jar na ko loo loolu nag problème la pervers kenn mënul débarrassé wu ci ñoom ñoom daal max lañu ci société bi waaw max lañu max waaw mu ngi noonu mu ne moom musiba la dalay critiquer ba pare te du la bàyyi nga dem waaw mu ngi noonu surtout ndox mu ngi attention dem moom doo dem moom mu ngi noonu coach yaa ngi liste <laughs> yaay listixaara kay listixaara ma de ndax listixaara moom du la wan lu nekk ci comportement nit ki comportement la yoo comportement la yoo xam ne dafa am suñu société te malheureusement dañ koy li may wax nii lépp dafay daje ci benn nit waaw xëy parce que am na yoo xam ne dañu gën a noppi gën a du gën a yaru seen jeu gën a naqaree xam parce que ñoom daanaka dañuy wax ni ñi ay mercenaires lañu ay kàkkatar lañu te nag pervers yëpp kàkkatar lañu dañu changé couleur ñoom tey jii pervers da nga koy gis tey ci benn environnement mu noppi discret yaru nga fekk ko ci beneen environnement ma ngay toj la nga ne waaw kii xanaa du ki ma xamoon ni moom la moom la de pourtant moom mais non parce que pervers fu mu dem day changé pervers mu ko fekk fii mu di la jaay diine di la jaay xam diine di la jaay xam alxuraan di la jaay yaru di la jaay une femme spirituelle nga fekk ko fii la lan demee mu ngi nekk ci beneen situation boo xam ne yow laa da nga naan mii xanaa du femme bi laa xamoon mu public de ma ngay dagg saaga ma ngay wax yu vulgaire mu ngi nekk ci environnement boo xam ne yow rek naa déedéet li mënul nekk parce que pervers amul identité moom comme caméléon caméléon nit la koo xamante ni bu tayee mu weex mu ñuul bu gënaaw mu jaune bu gënaaw mu rouge loolu nag problème la satu ne moom kay yaa gën a a seen ennemi waaw boo seen ennemi moom yow moom baax moom mënoo ko dégg moom baax mënoo ko dégg mais kon pervers sonn na ndax je crois que pas dina am paix intérieure déedéet paix intérieure mu ko am pourtant nag nit ku mën a afficher joie de vivre la tey boo gisee pervers ci nit la ko xam ne danga koy bëgg parce que tout le temps dafay nekk ah, tout le temps dafay afficher joie de vivre kontaan nekk nit ku yaatu nit bu convivial mais au fond nit la koy baax parce que moom mënul gis nit am succès mënul am bonheur mënul gis tey nit ki tey par exemple boo amee jëkkër au lieu mu yéene ko ñëppay kontaan moom il va mal même bu dee day retaan ci au fond il va mal day gis toog naan ay waay ñëpp a gisee yu bàyyi ma ne nangam sangam tey bu gisee nit ñi toog di nettali tey seen jëkkër nu mu leen offrir wala lu mu leen traité wala defal leen lu baax moom bu dee dafay nekk incapable offrir ko loolu moom elle va mal dina def lu mu def pour jaxase la ak sa te léegi pervers même ay propre sœuram ñu bu bokkal ndey ak baay wala ay propre frère am ñu bokkal ndey ak baay concurrence ak ñoom day toog naan jëkkëram xam ah, nga sama sëy dañ maa bañ am ah, suñu waa kër dañ maa bañ xam nga bëgguñu ma pour def jëkkëram mu xeexle ko bokk ci gàngam bu ko defee ñuy ànd déggoo coalition pour xeex nangam ak sangam pervers daal bu ko bëggee di gémmiñ gi bu ko ubbee day yàq der ñu subtilement am na pervers moo xam ne day sa der mu leer nañ danaan diw nangam diw nangam wax ko mu leer ñëpp xam am na koo xam ne nag a ah, Fatima Zahra mii ak a baax ak a nangam ak a sangam <laughs> macha allah waaye waaye moom ay waaye def leen attention de parce que xam nga rek nangam sa am loo xam ne bëgguma koo wax waaw parce que dama koy bañ a wax parce que xam naa ni ngeen mel ci moom nangam <laughs> kooku yàq na sa xel <laughs> dalay bàyyi nag ak du di bàyyi la nga naan ko mais waxal rek waxal non ci xam nga xam nga xam na ni mel ci moom dama koo bëgg bëgguma yàq dara waaye kii dama koo xam kii kii de li ma ko xamal kii def leen très attention c'est une femme boo xamante ni mais dañuy wax ni nag bu ko defee nag noonu lay adopté son jeune day rafetal ba mu rafet mu daal ci dugal tout toq yàq yow boo muusul doo sa xel bi du mbalax da nga ah, wax nii dinaa ci bàyyi attention bu beneen bu ñëwee. daal di ñëwaat indi la beneen discours ca ba xaalali ci beneen détail di la ko defal ba mu mot après na nga dem ba nga xam ne boo xoolee Fatima sax naan yii naka ni muy mel nii yëpp di affiché wu ci réseaux sociaux waaye ah kii de waaye yéen a waaye googu yow boo moytuwul kàddu ga yaa koy jottalil moom yow yaa koy defal promotion yaa koy siiwalal fekk na boobu moom li mu am na ko li mu bëggoon rek mooy yàq tilimal taqal moo tax dama ne nit ñi nañu am benn force mentale boo xam ne nit bu mu am fitu ñëw toog di yàq der nit sa kanam. parce que képp kuy yàq der nit sa kanam yow moom yow moom sa tuur bu ñu yow da nga koy yëgu la yëgu ko waaye yow sa bës jàppandi fu mu toog te pervers amul xarit bi moom boppam rek te pervers day yàq der yaayam yàq rek mu yàq wax ci li baax tey boo ñëwee tàgg nit ci si wala ngay apprécier euh, victoire wala nit ki lu am lu baax ci kanamam moom dalay afficher carrément que ni dalay won ci saa si euh, euh, boo xam ne mooy daal yëf yi intéressé ko wala neexu ko wala yoram newu ci jalousie bi daal lay feeñ danga koy gis ci gàttal ana mu ne amuñu kóllëre même soo leen defalee <laughs> kóllëre pervers bu amee kóllëre ci yow tee ngaa daw pervers de bu la téyee rek mooy yow daanaka rebineem nga dee da ngay xel li ñeex heure bu amee ci yow intérêt nga jox ko mais bis bu demee ba amatul li nga xamante ni tey mooy li koy jox muy que ça soit affection wala da nga koy tagg wala da koy aj di ko balbalaat loolu bu ko amatul ci yow mais il n'hésite pas à te dire ful parce que loolu tamit euh, dafa bokk ci li nga xam mooy jël bi Xadija et cetera mu nekk ci pervers mu ngi je confirme accuser nit seen accuser ak sosal ak ko ci léegi comment les éviter éviter pervers Peter Pell rek <laughs> pervers kenn ko éviter si pervers yi société bi déggoo ma ne la fii ku fi jeex sa famille fekk fa pervers sa famille boo xoolee bu baax xool def la corrélation dañ fay fekk pervers xanaa kay da nga dul nekk victime doo ko gaaw a cerner mais boo nekkee victime moom boo dégloo sama vidéo pare da naan aha man jàpp naa bi nekk sama famille boo nekkul victime am moom c'est difficile parce que pervers ki mu ciblé def ko victime am kooku lay wan jukkoom yow mi mu ciblé yow lu baax rek la lay wan kon dina difficile nga xam ne pervers la mais yow boo yeewoo am xel di xool ay tam ak ni muy wax ci nit ñi ak ni def ci nit ñi boobaay la ci pourras cerner la situation léegi nag pour nga mën a pour nga mën a comprendre il faut que nga am développement personnel ngeen formé wu sama vidéo yi pourtant def naa même vidéo série def naa ci série j'en ai fait tellement plus de dix vidéos ci sama YouTube def ay live def naa ci ay série ci le mari pervers foofu ci laa gën a focaliser wu le mari pervers parce que moo toj dëkk bi mais tey dama leen indi la femme perverse bu nekkee yaay bu nekkee goro nu muy yàqee société bi pour ñu gën a comprendre parce que pervers moom day nekk jigéen day nekk góor dëgg la nag majorité bi ñu ngi ci góor ñi minorité bi jigéen ñi la mais tey da ngay gis ni tey la plupart goro yi ñuy dëkk goro bu naqari deret goro buy tax sëyu doomam goro buy manipuler léegi na yéen ñi am goro perverse dañ leen ngeen toog ngeen jàkkaar seen goro ne ko ah xam naa ne perverse nga di bu xam oh am nga problème yaa ngi am problème nag na da ngaa ne pervers ah, nga di yow yaa ngi soog a am problème àddina léegi léegi nga koy soog a am moom da doon naxanteeg yow parce que xam na ne xamoo ko léegi na nga ne ah, kay kon kay nëbbatu jaratu ko fi kon defee très attention waaw mu ne su ma voilà so xarit di de comment les déstabiliser incha allah ci ñëw ak njëkke yi waa njëkke perverse yaa fi aha njëkke perverse yaa fi ay waay njëkke perverse tamit la ilaha illallah ay waay pervers narcissisme mu ngi noonu kon de tàgge leen aimé leen vidéo bi da ngeen ko partage changé leen ko parce que nit ñaa ngi sonn sama jëkkër sama goro sama jëkkër problème yi noonu la sama parce que ndax mooy société bi dafa cautionné dafa dem dafa mel ni goro bu anormal c'est normal dafa mel ni goro boo xam ne moom dafa weex dafa compliqué day dugg ci sëy te pervers du la bàyyi sa intimité pervers tey bu dee yaay la capable nga nga am vingt ans di solo mu ñëw xam ne da ngay solo wala da ngay sangu ci douche bi moo bi bunt bi nga ne ko yaay damay mais man barki dem bu dee sa goro la na xam ne yaa ngi fi sa jëkkër ci biir néeg bi intéressé ko rek gis parce que dafa bëgg contrôle du ko rëcc lu bëgg xam moom kenn amul intimité ci moom day évader bëgg di la contrôler bëgg di la xamal bëgg di la dugg comme siburu moom dalay xamal maanaam dugg gim lay dugg loola waral mu mën boo demee nag ba bëgg naan da ngay déstabiliser pervers li ngeen di ka dagg mooy relation bu étroite bi mooy bu la xamale ci dara tegal ko ay limite say reetaan mu bëri moom melal ni moom maanaam ni muy changé moom mel ni kàkkatar yow face à lui wala face à elle ni nga mën a def rek xam nga mooy lan mooy tey bu ñëwee indi débat parce que pervers ci ci waxtaan ci ay attroupement ci ay jëfinam ci la mën a duggee ba jeex di la coytu di la di la suqatu di yow yaay am maîtrise en soi sa làmmiñ bi nga téye ko bàyyi wax ju bëri bàyyi nettali bàyyi eh, bu indee débat wam bu ci dugg neutre ci sa yoon nekku ci même bu dee sa goro bu ñëwee di indi day wax ci doomam wala day wax ci njëkkeem wala day wax ci lii même boo amee ko problème neutre ci ne ko ah sa doom la di te ngeen koo rek la rek ba jubóo man moom daanaka yéen a ci gën a bokkee de moo lay may jàmm bu indee ay waxam xamal nañ ciy wax ah jamono ji di tey nit ñi di nangam sangam sang ah, mu ngi noonu àdduna bi daa doy yu gàtt te te précis maanaam waxi na gàtt tontu bi da gàtt bu ko defee kenn du la mën a bu ñëwee nag nekk victime jooy jooy jooy ba pare wala mu jàmbat wala mu won la nangam sangam bu boobaa ni ko ndeysaan yal na yàlla taxaw la yal na yàlla dimbali la àdduna dafa day waar même bu ñëwee accusé nit ne dafa jot ak moom ñoo nekk victime bu jël part na gàtt gis nga bu demee ba gis ni yow waxatoog moom wax dina la ko wax dina la waataay da nga changé mu nga changé ah man de gisuma mu ngi changé waaye bu fekkee ah dama expliqué taay da nga changé ne ko ah, ci lan noonu tax li tax parce que da lay bëgg a wax rek léegi nekk feelee tooma waxatoo ma sa bopp euh, da nga ma limité du la ko détaillé du la wax parce que moom léppam ma maanaam moom lépp da koy dafay dafay ñan lépp dafay vague lépp da koy daal di masqué boobaa yi yaay tax ne ko ah man xaw ma li nga bëgg a wax changé ci lan noonu ah, da xaw ma wax dof dof la même boo xamee li mu bëgg wax yaa ko gën a xam da nga ko da nga ko bàyyi bu ñëwee tey di la def ay façon wam wala di la jéem a wan ay di la annoncé wala di la jéem a dugal par exemple perte mën na ñëw gis la par exemple ngay ut kër mu ne dalay jàppale wala nga feebar di faju mu ñëw xam na kuy faj fii wala ay ay situation la rek yërëmu la yërëmu la day ñëw eddam nga bàyyi ko eddam boo bëggee jàmm bu laal eddam parce que pervers bu ndax un mu ne da ngaa fii nga fi am nangam ak sangam ma taxaw wala maa la lebal xaalis wala maa la a lii wala maa la wala maa la nangam sangam ah waaye pour nga lii rek nga mën a mel sa bopp kenn du jël aide pervers nettali waaw nee nettali moom dalay yar xam nga li tax pervers léeg boo dëkkee moom muy sa yaay muy sa papa muy ku mën a doon dalay yar mooy lan mooy tey yow bu doon nettali kan nga di nga bàyyi nettali bu dee da nga naan dugg sa yoon nekkul di nga bàyyi dugg <laughs> bu dee da nga maanaam étalé bi nga doon étalé sa bopp dalay wan ne lu nit bu loolu nit bu confiance mooy tey dangay soxla euh, mu approbation mu d'accord soxlaatoo ko léegi da ngay gis do doo ma yëgal léegi doo ma tàggu léegi doo ma nangam xamal ko ne yaa moom sa bopp nga jëlaat nga récupéré waat sa bopp bu la neexee nga ko yëgal bu la neexee doo ko dam eddam lo woo ko ciy débrouille toute seule amoo pour di ko avertir wala di ko ay fa même bu dee sa waajur la yow léegi tu es majeur et vacciné tu as 30 ans du lépp nga ko war a wax sa néegu sëy ndax yaay yaay rek ndax am na nu muy demee pervers tey bu la gisee nga nekk doom di sëy sëy bu neex capable na ko yàq man gis naa yaayu perverse boo xam ne wóor na jëkkëru doomam ni ko carrément euh, diw de nangam respecté wu ma may ndeyam waaye defaluma nangam nangam sàng kooku jëkkër ji woo ko di ko xas un deux trois fu mu xulu jëkkër jëkkër ji ko xam ne sa yaay nangam sàngam ndax jëkkër ji moom pervers la woon xam nga kon yaay bu mel noonu est ce que jaram mi sa sëy man gis naa koo xamante ni jëkkëram daf ko daf ko maanaam dafa daf ko may oto daa di parce que moom dafa tukki woon jëkkër ji daa di ñëw daa di yëkkati caabi oto bi jox ko yaay ji yaay ji daa di jaay oto bi ne soxla woo ko dama dama ay problème dama fi ay bor jaay naa oto fay naa fay naa ay bor pour wan la soxoru yaayu pervers ak pervers moom pervers la yaayu papa ak doomu ceeb donc nga gis situation mel noonu nit ki di ko du comprendre lan moo tax sama yaay di ma mais lan moo tax sama topp ma lan moo ma lan moo tax mu soxore ma lan moo tax mu jalouse ma bu dee ci diggante jëkkër jabar dañ koy nangu bu dee ci diggante ay yaay ak doom wala papa ak doom dañ koy nangu et pourtant noonu la ci amee léegi nit ku mel noonu tey yow yaa mën a jël say garde yaa mën a xam ni ngay préserver sa bopp ba situation yooyu bu amee nga limité wu limité ko xam li ngay wax xam li nga dul wax waaw nga limité sa bopp tey bu ñëwee di la accuser ak di la culpabiliser bu ko jël jamais sur d'un plan personnel ndax moom li mu lay wax ci lu bon ci moom la nekk ginnaaw moom lu bon rek la am moom rek la la mën a jox moom say qualité du ko mën a gis parce que moom koo gis parewul pour gis ko moom addina bi ba mu moom rek moo baax moom rek moo am qualité moom rek moo xam moom rek moo mën te nii ma la ko waxee boo ko seetloo nii nga koy gisee ci moom moom da ngay gis ni mën a mën a même bu ko waxul dara koy wan da ngay wax ak moom moo la ne xamoo dara munoo dara moom tey boo amee besoin sa soxla wala sa moom gisu ko moom pour moom yow problème amoo ko moom rek booy xaritoog pervers da ngay gis ni yow heure boo toogee di ko say problème da ngay gis ne carrément intéressé ko et pourtant moom heure bu amee problème day jooytu nga taxaw ko kon da ngay gis ni moom say say problème say besoin intéressé ko da ngay gis ne pervers bu nekkee sa waajur tamit heure boo amee problème moom intéressé ko du ko lijjanti boo koy jooytu sa problème du ko lijjanti limite sax mu culpabiliser la ne la yaa deful la la war bu fekkente ne tey moom am na problème da ci war a taxaw ko da ngay gis relation bi décalage bi ci am. mooy moom rek boo existé yow existé wu léegi nag boo bëggee noppal sa àddina ñaan ñooñu li ñu def ci lu bon dellowaat leen ko parce que ñoom ñoo ko moom moom la métteeti parce que tant que lay métti ñuy gis say émotion di gis ni ñoom am nañu pouvoir parce que père bi dafa am pouvoir naqaral la heure bu ko neexee am pouvoir yàq sa émotion heure bu ko neexee am pouvoir fekk la nga kontaan yàq sa kontaante am pouvoir déséquilibrer say émotion léegi nag nit ki boo ko boobu pouvoir yow mooy yow ñàkk que damay wax ni doomu ma bu muus waroo jox benn mu am pouvoir di culbute sa émotion heure bu ko neexee yow yaa war a jàng maîtrise en soi loo tax ma ne nekk pervers dëgg la merci na de mais boo amee xel nga nar a texe dina la jàngal lu bari ci sa bopp mais dina la jàngal nga am ay qualité yoo xam ne tey di nga ko développer pour dund ak moom ci jàmm wala dund ci àdduna ci jàmm jàmm gi moom la parce que nit ki nga tamit loo développer développer am développement personnel il arrive des moments tey mu def la yoo xamante ni di nga réagir ndax moom réaction boobu rek la ca bëgg boo nga gis il se calme léegi nag boo dee ba am maîtrise en soi nekk moom dina am ay jours yoo ne dina metti di nga sentir ni kii nga ko war a toog da nga a defanteeg moom defante boobu la ciy ut léegi nag boo ba comprendre kii sama defante day manque sa énergie day ngay xuloo xuloo ba sonn te da ngay gis ne même bu dee dërëm nga tey capable na ñëw di la xas di la du n'importe quoi boo ko tontoo mu capable tey mu ngi am 30 ans 40 capable na jël dara dóor la capable na gaañ la capable na xaañ doomam capable na def la day agressif tey day man gis naa boo xam ne doo doole la jël ko dóor ko dóor doy waar nga gis bébé xam ne doo seen doom ba toj bopp bi nga gis bébé xam ne day seen doom yi violence bu atroce boo xamante ne da ngay xam ne lii du yëfu parce que moom lo waree gaañ dalay gaañ moom xool bi buy baax il faut que mu faj ko parce que bu la defee lu bon ba pare da ngay gis après mu ñëwaat baalu àq ah, sama yaay li def muy def ba pare dafay jooy dafay lii li mu def dara safu ko ci li mu bëggoon am na ko mooy xool bi doon baax traversé na ko ci yaw xool bi doon bax euh, sotti na la ko kon là il se sent bien elle se que elle est euh, bien léegi donc li mu bëggoon jox na la léegi nag yow yaay xool attroupement yooyu mu bëgg heure bu ko yéemee déclaré boo amee possibilité sori ko nga sori ko boo amee possibilité ba nga traîner fa mu nekk nga bañ fa traîner parce que loolu la jàmm parce que pervers bu lay ut dina jafe loolu nga rëcc ko day jafe loolu nga rëcc ko parce que day xool fa gën a metti fa gën a sensible fa gën a sañe foofu lay tibb foofu lay tibb di la ko wax di la ko def muy metti du ci mën tous kon li ni méthode bi nga mën a protéger sa bopp mooy daw ay débat wam bu fekkente ne mënoo génn kër ga nga ut say casque sañ ko sa nopp koloo sa kol li muy wax nga bañ ko dégg ndax bo koy dégg di ko tontu ay xam ay attroupement am ay defam boo koy dégg di ko tontu léegi nag yooyu yëpp nan ngay mën a def rek mooy nga fexe bañ ko fekk ci terrain de jeu ndax yow nit ku nit ku normal nga da ngay xuloo di sonn sa xol bi di jeex sa énergie jeex moom xuloo boobu bu ci jógee day recharger ay batterie énergie am day gën a bëri et que elle se parce que sentir que sentir na que ni moom mën na ñëw fekk la nga nekkoon ci état ëpp mu la ci état boo xamante ni yow daanaka ba pare da ngay sa bopp. dangay dangay bañ sa bopp parce que danga naan état bi war mu fi woon nekk moom état bu normal ci moom bu paree capable na sañ sa ba jekk solu génn mel ni du woon moom moo fi doon tas kër gi léegi kon dangay gis ni tous ces comportements là ce sont des troubles yoo xamante ni malheureusement kenn amul garabam kenn mënu ko faj yow li nga mën rek mooy di leen moytu ak éviter parce que euh, mën nañ ne poison lañ ci société bi waaw pervers ci famille antisociale yi poison lañ ci société bi parce que ay nit la ñi nga xam ne tey seen degré mën na yéeg ba egg ci degré psychopathe ce sont des personnes yi nga xamante ni vraiment li ñu capable def kenn mënu ko wax ci live direct ah kon nag pour képp koo xam ne da ngay dund yenn situation yi nga bëgg ci génn fekk si suñu suñu formation développement personnel yi nga fortifier sa bopp defar sa bopp defar sa avenir parce que àdduna moom ya tant que yaa ngi dund di nga daje ay pervers boo jógewul ci kër gu am pervers sëyoo ak liggéeyoo ci pervers ma xam ne kon boobaa ñëwal wax ma ndax kon mbër nga ndax fii ma boo muccee ci bii doo mucc ci baa ndax la plupart boo moytul kër gi nga jógee nam PV boo moytul fa ngay seeg nam PV boo moytul da ngay seeg PV boo moytul di nga xarit PV mba seeg collègue nga am ci PV tey PV même bu dee sa patron capable na yóbbu la ba dépression am na PV yoo xam ne ñu yóbbu seen ay doom ba ñu xaru am na histoire bu ma lire barki démb nga xam ne sëru ndaw si xaru ko doon nettali di nettali yaayam ni mu doon traité sëram boobu ni mu ko doon traité des fois mu ñëw di ko jiñ waaw da ngay gën jox sa bopp góor ñi waaw yaa ngi ni nangam ga yaa ngi ni nangam nga yaa ngi ni sangam nga mu ne te sama sœur nekkoon ku pudib nekk ku bëgg diine nekk ku yaru mu ne sama yaay daf ko daan xas daf ko daan saaga naan ko naa fekk nga boo jógee di jaay diine parce que pervers bëggul sax doomam di ko wan ne dafa am diine parce que yow doom bi tey bu fekkente am diine di jàng alxuraan di muuru di lii da naan non yow sama doom nga da ma bëgg wan ne yaa ma wala yaa ma gën a gëm yàlla na yi nangam sangam da nga ma bëgg a wan ne yaa ma gën a respecté a nangam bu defee dara boo ko ne yaay ragal yàlla saaga sa boo moytu eh, di def ay wax yoo xamante ni dafay ëpp parce que nit la koo xamante ni da ngay gis ni tey yow mii di doomam wan ni carrément que ni yow nit bu sàgg rek nga mën a doon mënoo ma gën même bu dee doomam nga léegi ne imaginer ki nga xam ne tey mën na puus doomam mu dem ba xaru wala puus jabaram wala jëkkëram dem ba xaru wala puus nit mu dem ba nekk am dépression dem ba dem à la folie dem ba xaru kooku du nit boo xamante ni dañ ko war a sous-estimer du nit bu ñu war a sous-estimer parce que doom aadama yu bari ñu ngi fi def di n'importe quoi seen àddina yàqu boo xoolee dama naan nit ñi bala ñu leen di yóbbu ci psychiatre di leen faj nañu vérifier seen entourage amul ay psychopathe ak ay pervers pare bu ñu vérifié ba gis ne seen entourage loolu am fa bu paree soo ko yóbbu parce que nit ñi bëri ñu ngi fi dof am la folie te seen entourage moo am problème te lii malheureusement mooy dëgg bi am Sénégal te bu doon live fecc booy day fees dell bu doon live jigéen ñi lan la ñuy def seen saf-safal seen awra yi ngir ñu mën a mel ni mel naa day fees dell ay ak ay ay partage fees ay abonné bu doon live kaa ñu xas góor ñi day fees dell waaye bu ñuy def live pour wax nit ñi da nga xam ne mooy seen intérêt di leen wax li nga xam moo leen di jëmee kanam da ngay gis nit ñi dañuy tokk benn benn ndax nit ñi bëgg ñoo changé te daa mel ni ñuy dund daf leen neex kon nag mënuñu lu dul bàyyi leen ci seen situation boobu ñu kii ci waaw di leen wax euh, ba beneen incha allah di yabale live bi fii di wax ngeen partage ko abonné nag ci canal bi soutenir liggéey bi parce que mooy tax nit ñi am éveil de conscience ndax comme ni ma ko waxee canal bi ko fi yegsi di nga xam ni xel dañ koy tàggat xel dañ koy defar xel dañ koy yokk pour lan ngir dund gi mën na neex ngir dund gi mën a tegu ci kanam ngir ñu mën a dund jàmm kon mbokk yi ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah ba beneen incha allah di leen jaajëfal kontaan ci yéen bu baax a baax si. compagnie bi ngeen fi nekk di Pulor di leen ah, di kontaan ci yéen di leen wax nag ah, di leen partager vidéo yi dee leen ko aimé dee leen commentaire de poser seen question parce que liggéey bi dafa war yaatu ñëpp war nañ si jot et que ñëpp war nañu ah, xam nu ñuy def pour préserver wu ci yi nga xam ne dafa nekk suñu dund quotidiennement de tous les jours bu ko defee da ngay dem bu dugg ci cercle vicieux boo xam ne du la arrangé. Touré Hawa mu ñun de def na mais ngi jël ñu ngi jël mu euh, tëdd alhamdulilah coach merci beaucoup El Sall ñu ngi lay jaajëfal Fallou Meng yi ñëpp ngi leen jaajëfal di leen wax asalaamaaleykum wa kon ba beneen incha allah.